la la asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñu topp ci biir ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo ak ziar yëpp nag Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu defal ko wér ak gudd fan ba yéen a jim am ci liggéey Sëñ Tuubaa lépp mu yeggale ko ba sumb leneen tañ fekke lépp nag waaye ñaanal ko baax suñu yaakaar jii di Serigne Cheikh Jëmm nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kaw suuf yàlla na yàggal fi Serigne Cheikh Jëmm ba yéeneem ak pas-pasam ci liggéeyal maam lépp mu jëf ko waaye mbokk yi leen nuyoo Euh, fii ci Mbàkke Bawol euh, fii ci gen koo miin sax ci Mbàkke xewar fii nga xamante ne bii tey liggéey bu rëy bu tedd bi nga xam ni eh, boobu ba léegi yéen a ngi koy déggandéem euh, fii la tey ji mooy istaatu Mbàkke bi nga xamante ne bii Serigne Mouhamadul Mountakha Mbàkke mi fi nekk Serigne Touba Cheikhul Khadim nga xamante ne bii tey moom lañ ko jëbbal Eh, muy doon alalu sëñ tubaa comme ni mu koy waxee saa su nekk rek waaye mu jëlaat lépp nag teg ko ci loxol Serigne Cheikh jëmm li ko fi sëriñ bi bëggal li fi sëñ bi bëggal sëñ Touba Cheikhul Khadim mooy ñu def fi daara waaye def fi jàkka miire ko mu wër ba li nga xamante ni moo fi nekkoon di terrain bu ñu doon fubali muy fowukaay lépp sëriñ bi dajj ko sànni wax na daal na ko sëriñ Cheikh jëmm eh, taxawu liggéey bi miire ko defal ko fi daara tey njaboot gi yëpp nag dippi ba sëriñ bi joxe ndigal li muy altine jooju nga xam ne lañ ñëwoon ngir bi fi nekkoon mu daanu xam nga ne signal ba la a doy kéemtaan rek mooy dañ koo topp ba ca buut ba mooy fondation bi dëjj ko fas yéene ñu teg benn brique ci kaw lenn lu fi nekkoon loo xam ne moo fi waroon ñi fi nekkoon di caaxaan ak di fi fo wala mu ñu fi tooñ sans borom nga xamante ni bi tey li fi Cheikh Mouhamadou naal mooy lépp loo xamante ne defoon nañ ko fi ci tooñ sans boroom rek ci lu nuru ay caaxaan tey ñu jaamu yàlla lu ko kawe fii ci bërëb bi ndax daara ju ñuy jànge waaye def fi jàkk ji ñuy jullee waaye miire ku mu wër loolu la Baye Fall yi nag war a def fii nga xamante ne bi tey mooy istaatu Mbàkke bi nga xam ne miin nañ ko ci mooy ñaareelu istaat bu ñu toxaloon ndax xam ngeen istaat bu njëkk ba mooy bii ci bunt bi nga xam romb nañ ko ci altu Daaru Salaam maa ngi fàttali ko ba may doon ko ne Serigne Saliou Mbàkke lañ ko jébbaloon euh, tey Serigne Cheikh Saliou moom lay tabax jumaa nii ngay gis àddina gis nañ ko fii nag ñu àndalaat ko indi ko fii ndekete ñi ko indi fii xamuñu li Cheikh Ibra Fall na woon xam-xam na waaye xamul fii la Serigne Touba gënee jamono ñëpp fii lañ tëdd barabu Mamor Diarra ngi nii Mbàkke Xewar a ngi nii li wër fii yëpp xam ngeen ne fii cosaan la ci yoonu mu murit ndax sëñ Touba Seexul Xaddim yàgg na fi Seex Ibra Fall yàgg na fi def nañ fi ab diir bañ jógee Mbàkke Kajoor fii lañ toxu si jógee fii dem Daaru Salaam sëñ Touba tudde ko kërug jàmm gi ba dem sanca Touba fii cosaan la ci yoonu murit tey xamuñu ñu ñëw def fi stade di fi caaxaan di fi fo waxtu yu masaan a jot jaar naa fi ba tey lamb yi course yi caaxaan yi football bi basket bi lépp fi nga koy fekk muy caaxaan di fi day fees dal foofu sànn mbatt mu takk waaye gis nga tey jii xoolal la fi newoon démb ak li fi ne tey nga xam ne sëñ Muntaxa kenn xamul lu mu doon sëñ Aliou Batara lii daal mooy li nga xamante ni bi tey moo tax seen télévision Lamp Fall ñëwoon ngir nemmiku leen eh, ma ànd ak sëñ Aliou Batara sama jëw yi xam dama koy bàyyee kàddu gi su ko defee moom eh, mu daal di eh, tënk lenn li nga xamante ni bokk na ci li ñu fi indi tey ngir won murit yi ci àddina bépp lan la Cheikh Mouhamadou Muntaxa ni bii fi lañ daan caaxaane fii ci Mbàkke te waru fee am ndax Mbàkke Cheikh la jëm waaye Mbàkke lañ koy séddalee ma bëgg bu ñu ko séddalee sédd ma sans wàll ku ne xam na ne boo doxee tuuti jot ay pàkkam signalé ko. jërëjëf euh, Serigne Mamadou Ndaw Baye Fall asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye tàmbalee si nuyoo boobu ak ziar bi si ni ko Serigne Mamadou Ndaw waxee Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ku jara ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te mu waaye jëwriñam bu tedd bi di Serigne Cheikh Jëmb Fall nga xamante ni euh, moom dégluwul lu dul bëgguk Cheikh Mouhamadul Muntaka ba daal di koy taxawoo ni ko sëriñ bi bëggee moom it yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te mu ànd ak wér ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall mii sunu yaakaar tey ëllëg sunu borom yàggal ko fi lool te man dëkk wér nga xamante ni moom ba ndigal li jugee maanaam boobu ba léegi toogul moo njaboot gépp rek ngir taxaw liggéeyu Serigne Cheikh Fall jëmb gii nga xamante ni si Serigne Touba Khadim Rasoul la jugee sëñ Mamoun ni nga ko waxee kon fii ab stade la woon Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xamante ni lépp dajana si loxo macha allah yàlla na yàgg lool te ànd daal di ni barab bii nañ ko jox Serigne Touba Khadim Rasoul xam naa ni incha allah dinañ ànd ak ñi nga xam ndax loolu am na fu mu war a jaar mooy autorité locale yi di ki nga xamante ne moo yor sañ-sañu dogal bi si wàllum nguur ku mel ni mairie bi monsieur le maire euh, Serigne Abdou Mbacke Ndaw ñàkkul ni dina feeñ si biir reportage bi sëñ Mamour am lu mu si joué waaye Serigne Cheikh Fall jëmb mii ba ndigal li rote ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha ba mu ne fii dama bëgg ñu jox ko Serigne Touba ca li ma fa bëgg euh, euh, maam Cheikh Ibrahima Fall rek moom moo ma si doy. xam ngeen ni ba ndigal li rotee Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr la yónni mu ànd ak Serigne Cheikh Abdou Latif ak ñenn ñi ñu àndal si délégation boobu bañ demee wax ko Serigne Cheikh jëmb sëñ Mamour li gën a yéeme mu njëkk a def mooy waajal addiya ngir sante ko Cheikh mun Mountakha Bachir ci ndigal lii nga xamante ni jox nañ ko ko yaakaar naa niñ ko xamee muy ñaar fukki million ak jumtuwaay yi nga xamante ni moom la àndal ngir nag daal di fobu ànd ak mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi bàyyiwul benn buntu kër ñu ñëw nag fas yéene jëfe ndigal gi niñ ko tàmbalee mooy ni ngeen koy gisee ci image yi ñëw song muru clôture mur de clôture sat bi daanal ko dijjati ko ba ma sëñ Mamour dijjatiwaale euh, fondation bi mooy ni nga ko waxee waaye di amuñu foofu tribune officielle bi wala tribune bi nga xam fa lañ daan toog di seetaan yiñ fi daan def mooy football bi ni nga ko waxee di course bi di yeneen yi fi daan xew yëpp tribune boobu nga xamante ni ni ngeen ko gisee mbokk yi yemuñu si daaneel ko ba noppi waaye dañ koy toj ba maanaam euh, boo fi rombee da ngay naan fii est-ce am na lu fi amoon sëñ Mamour loolu nag di liggéey bu sell bu passif boo xamante ni njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu ngi koy liggéey fii euh, si ndigalu Serigne Cheikh Fall jëmb euh, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ànd ak jëwriñam yu mu koy àndal ni ma ko tuddee sànq Serigne Bassirou Fall alquran ak waa këram Serigne Cheikh Ngunda Fall ak waa këram sëriñ waa kër sëñ Modou Aminta sëñ Falloum sëñ Modou Aminta ñàkkul ni dinañ am seen i kaddu si biir waxtaan wi sëñ Moussa Fall mbar mi njëwriñam ak mboolem njaboot gi waa waa kër sëñ sëñ waa kër sëñ Abdou Sakkoor waa kër Chérif Hassane sëñ sëñ sëñ Amdi Xadi wuñ kenn buntu këri Cheikh Ibrahima yëpp ñëw wuyu si si liggéey bu rëy bii nga xamante ni dañ koy liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasoul ci barab bi kon liñ fiy naal mooy mur de clôture bi ñu dindi ba nga xamante benn jeexitalu stade dootu fi amati maanaam defaat ko beneen mur bu mucc ayib waaye bu ñu noppee naal fi liñ fi naal ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha di jumaa ji nga xamante ni de jàpp nañ ni sëñ Mamour incha allah ñaar fukki fa nag juróom-ñaar euh, ci weeru kon euh, rakaati gàmm si lay ñëw incha allahu rabbi wala yable ngir ñu daal di teg xeer wi waaye nag comme ndigal jëb na sëñ Cheikh Fall jëmm nii Baye Fall yi nañu nekk kon euh, tàmbali liggéey bi li fekk geneen ndigal di rotaat te ndigal li nag moom mooy dindi li fi nekkoon woddaat ko. def fi bëggug sëriñ bi ndax bu ñu noppee si jumaa jooju li ñuy def mooy sëñ Mamour taxawal fi institut islamique barabu jàngukaay waaye ay dalluwaay maanaam kër sëriñ Touba Xaadim Rasoul te Mbàkke rek war a am kër sëriñ Touba Xaadim Rasoul ndax lu bëri sëriñ bi. nee nañ xewee na fii si Mbàkke sëñ Mamour moom ak sunu sang ba sunu yaakaar ja tey ak ëllëg maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni nee nañ fii la jógee ànd ak moom ñu dem fee ca Daaru Salaam ba ni ñuy euh, demee euh, Touba ba ni sëñ bi demee si tukki bi kon fii daa bokk si taarix yi bokk si cosaan wi am sax lenn ci leeru sëriñ bi yoo xamante ni ñu ngi fi ni nga ko waxee magi mag mu ngi si wet gi kon fii dafa yaakaar lu bëri dafay xajul waaye nag mbiri sëriñ tubaa moom lu si nekk ak app bu jot app bi daa jotee fii si euh, ki nga xamante mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir tax mu tàbbi si yoxoom te noonu lay demee ci leneen lu mu mën di doon lu ñu séentuwul rek ndax nag mbiri Serigne Touba moom tànki kanam rek la am ni ñu koy waxee saa su ne kon liggéey baa ngi nii seen Mamour ñëw fekk fii góor jigéen mag ak ndaw ci képp koo fi gis fii am na loo xamante ni moom lay yëngu jëmale ndax soxna yi gis nga leen fi seen doole toll ak seen xam-xam fu mu toll fa leen leen féetale tout tànk yi seen doole fi mu toll ak seen xam-xam mu toll fa leen leen di féetale mag ñiit ku si nekk waaye fi mu ne nii fi ñu toll mooy liggéeyu maçonnerie nga xamante ni mbooleem euh, li euh, maam Cheikh Ibrahima Fall am si ñu seen xam-xam màcc si wàllu maçon ñoo ngi fi jamono ji doon ay jëwriñ di saytu liggéey bi nga xamante ni ñu dul maçon ñoo leen siy jàppale ci wàllu gage bi si wàllu mël yi mool def ay defar ay mool ci wàllu tubb suuf seeg tubb béton yi yooyu yëpp incha allah dinañ si dikk ak euh, mbokk yi waaye duñ yem foofu jëwriñ yi ku si nekk foo féete dinañ yëkkati maanaam euh, jàngat am si yow ñaari kàddu yoo xamante ni kàdduk jàngat lay doon ak kàdduk wax ñu liggéey bi fii nga xamante ni moom la moom la toll sëñ Mamadou Ndaw kon ñu ànd ak sunu caméraman El Hadji Fallou Syll ñëw fekk fi jëwriñu liggéey mbooleem seen kuñ si mën a am sa kàddu rek incha allah dinañ ko am ngeen xam ne liggéey bi nii la demee waaye bu ñu noppee duñ yem foofu ndax monsieur le maire euh, de la ville de Mbacké ay Serigne Abdou Mbacke Ndaw ni ñu ko waxee di nag surtout Serigne Touba Khadim Rasoul euh, nag dinañ dem si moom it euh, mu wax ñu lenn si nan lañ def ba mbir mi tabbi si loxoy Serigne Touba Khadim Rasoul jamono ji ko sëñ Mountakha bëggee loolu yëpp incha allah sëñ Mamour ngeen ànd ak seen émission Jazboul Mouride ñëw spécial tey si liggéey bu rëy bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha jox na ko suñu yaakaar tey ak ëllëg euh, di Serigne Cheikh Fall jëm sëñ Mamour Ndaw tubaarkàlla euh, euh, jërëjëf signalin Badara Ndim di bu baax ci leeral yu am solo yooyu waaye ni nga ko waxee rek di jaajëf bu baax El Hadj Fallou Sylla di jàmbaar moom itam di ko xam taxaw na liggéey bu baax a baax di ñaan suñu borom defal ko mucc rek waaye kon fas yéene rek xam naa ne daal di dugg nag ci mbokki taalibe yi xool ni nga xam ne ne la ñuy taxawoo liggéey bi euh, ñu ngi ci mooleur yi mooleur yi nga xamante ni ay jàmbaar lañ incha allah waaye tamit euh, ki nga ku mel ne moom ñàkkul ñu ngi koy gis léeg dégg rek ci soññe bu am solo bi moom tam ak Baye Bara ak mboolem ñi fi jël kàddu ñëpp nag incha allah ñu fas yéene leen koo woon rek loolu mooy li nga xamante ni bi moo ñu tax a jóg ñu ngi ñaan yàlla nag daje ceeg taw feexi sëriñ bi te lépp luñ ciy sàkku ñu bokk ko mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun si Ndialine Badara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 yéen ñi nga xam ni dangeen a fekk bërigo ci kaw tund ñu ne ba max leen ko te ñu xam ne ku ba maxulit mu daanu waaye boo ca tegee sa loxo da daal di bokk ci ñu am tagg ñëw ba max bërigo bi yéen ñi jéem a jéebaane loo xam ne dañu koy liggéeyal Cheikh Ibra ci ndigalal sëriñ Touba yàlla na ngeen ko yàgg def te muy seen jiglaay di ak yokko nag nag ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall barkeb Serigne Fallou ah noo ngi jox kàddu yi joxe kàddu yi ci ndigalal sëriñ Falilou Fall jëwriñu Cheikh Modou Aminta Fall di sëriñu Cheikh Ibrahima Fall ci jamono a ah, mu jaar ci jëwriñam Cheikh Moussa Fall Falilou ak jëwriñu kër gi yëpp nag ngir liggéey bii moom rek la Baye Fall yi doon tuglu ndax Baye Fall ab dundam mooy ndigalal sëriñ Touba bi yàlla dogalee baat bi ñëw ci Cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem ñu sant Mbàkke yi ñu koy wuyoo ñoom day yàgg nañoo wax ne lépp lu ñu bëgg a liggéeyalu ci Serigne Touba Cheikh Ibra leen ci gënal moo ci gën a gaaw Serigne Saliou Mbàkke day ay xel koom waxoon na ci làmmiñam ni li mu bëgg xel koom waa kër Baay Cheikh Ibra ñoo ko mën a def kon waa kër Baay Cheikh Ibra am nañ dam bis bii nag bi nga xamee ni ñëw na te ñu ñëw fi daji miir yi dindi stade bi sëriñ bi joxe baat ni ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru wolof yi ci la xalifa bi war a ñëw te xeer wi ñu war fee ñu war koo miire miir bu ràññi ko def it ay jàngukaay def it dëkkukaay yu ñuy jàngale def it jàkka ak leneen lu nu dab waaye loolu la ñu tuddagul loolu nag. li sëriñ bi bindan rek moom la bay Fall di def mooy liggéey jox sëriñ Touba da jàngoon nan ci mbindum sëriñ bi bu ni waqdi awa ijëla o ma istabil basli wal xidmati mastataxta bu fekkee da nga bëgg sa aajo faju da ngay faj aajuy sëriñ bi lii kat aajuy sëriñ Touba la Cheikh Ibra ko war a faj te noonu nooy njabootoog Cheikh Ibra Fall te danoo bëgg sunu aajo faju ñu ne nag da ngay joxe sa alal ak sa doole ñi fi teew nag ñu ngi joxe seen alal seen doole mu mel ni kon ñu ngi cax ñi nga xam dañoo sori te mënuñoo teew ana nu ñu war a def fii mu ne moom oomo ko ma yóbbante mu amatul ndax tey tey tey rek ku bëggan sa te sa jëf teew fi rek di ko def soxlaas na fi lépp loo xam day jëriñe lépp luy jëriñe rek soxla nañu ko fii ci pàkk bii tey ba kera muy egg bëgg nañu fi xaalis bëgg nañ fi béton bëgg nañu fi suuf ndox mi du doy bëgg nañu fi ñi liggéey li ñuy war a mus ba mën a dëgër ak lépp lu mu mën a doon suukar ak kafe ak ceeb ba ci gerte caaf bu ñu ko bañ a indi mbaa ñu indi njëg gi ñu jox ko fi ñi ko ñi fi nekk ñu wëlbatiku di ko jëriñoo te itam murit yi waru ñoo seetaan sëñ bi woote ab liggéey ñu bàyyee te sëñ bi di lambaat poosam di joxe dépense. xanaa murid war nañoo mën a xam ni fii dépasse war na fee dox lu ëpp junniy nit nga bëgg leen toggal añ abis bu ne te xamuloo kañ ngay kañ lay jeex xam nañu ni kon ko am dara ta man fee def dara danga fay war a def dara mu wax nag moom sëriñ bi ni woote bi day bawu ci kenn jullit bu mën doon te nga xam ni liggéeyub jullit nga bëgg te bëgg payug jullit woo nañ la fii rawatina murit nag rawatina ki ni moom Baye Fall la Baye Fall moom amatul droit korosee loxoom ñëwul dikk ñëwlewul loolu moom musiba la ci Baye Fall bi ko tudd te doonu ko ta ta ta bëgg koo doon ki ko tudd te doonu ko nag sunu yoon niwul ci moom loolu moom sëriñ bi bokk na ci li mu wax barab bi nag mais peel yi ñuy liggéey sax ku ko fi indi ñu jël ak brouette ku fi indi picc ñu jël rawatina nag béton rawatina suuf ak ciment mboolem loo xam dañu koy liggéey mbaa muy jëriñ koy liggéey sëriñ bi soxla woon na ko fii ndax ñu koy jëriñoo ñoo fi ne sëriñ bi nee ma tàllal na loxoom ku dib julit rawatina murit bi Baay Faal bi dañu ko forcé sañu koo bañ ndax sëñ Moussa Fall Fali lu muy kat nee na bi fajar jotee dañu ne allahu akbar Baay Faal xam ne allahu akbar li muy firi mooy yàlla ka màgg ñu dem ba yàgg ñu ne waxtu wi jot na ana luñ cee teg asalaatu xayrun mina nawmi julli day moo gën nelaw waaye taxul Baay Faal bi jóg kon Baay Faal bi kay bu fekkee ni bañu ñu ne allahu akbar jógul bañu ñu ne asalaatu xayrun mina nawmi jotul jógul mu dem ba jant fenk ñu woot liggéeyal Serigne Touba tamu yaakaar ca lu koy jëriñ bu nekkee di biddanteeka biin biin lu na seetaat boppam ak Baay Faal manqué na nañu ko bàyyi xel mbaa dégg ngeen loolu loolu nañu ko xam ndax Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñeenti jikko yi dar saxaaba yonent bi alayhi salaam bu ñu ko seete ci moom gis ko ndax Abu Bakrin Sadiq dégg nga dakkental as Sadiqu dëggal gu mu dëggal yonent bi ba bu ñu nee Muhammad nee na balaa xam li ñu wax danaa wax na dëgg ba. bu yonent bi waxee ci kanamam mu ne ko saddaxta yaa rasulallah ñu far ko tudde saddiqu aji dëggal ji lu dëggu kat la dëggal waaye fekk lu dul dëgg mu di ko dëggal bi mu ko dëggalee yàllaa ko dëggël yonent bi wax dëggal ko moom yàlla dimbali ko mu dëggal dëggalug yàlla afekk ci yekk ci yonent bi alayhi salaam waaye dëggal googu nag xoolal siré Cheikh Ibrahima Fall ni mu ko jëlee bu ñu masaan ne sëñ ba nee na rek mu ne bu dee lu muy def lu nañ ci gaaw bu dee lu muy nañu ko baax bu dee lu muy laaj nañ ko ko jox lépp lu mu mën a doon Cheikh Ibra gëmi na ko noonu Cheikh Isa Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kon sadixoo nga ko boo demee ci ah Seydina Aboubacar Seydina Aliyun xam-xam la ñu koy waxal ne mooy baabul ulum waaye Cheikh Ibra boo dikkee ci ni féete Serigne Touba baabul ulum la moo tax ñu di ko wax baabul muridina lan mooy baabul ulum buntub xam-xam. xam-xam mun ta weesu kere loo xam ni kii woote lu dul yàlla boo ko ko defalee mu man ko booleeg la mu soxla loolu xam-xama koy maye ànd ak nit mu am cirub yàlla nga di ko defal te du la ni bako du la ni lii bokku ci kooku muy xam-xam xam-xamub Ibrahima Fall noonu la toppee Serigne Touba kon xam-xamub lii Ali ñëw na ci Cheikh Ibrahima Fall ana kan mu ni Seydina Ousmane Bun Affan moo daa financé financement boobu. da ngay seetlu bi Ibra digganteem mag Serigne Touba bi ñu nee sëñ bi làqu da te ñu ni raay bii dañu koy indi Touba mu war a jóge njaareem Touba bi dañ ci indi ak ak ak bëgg a yàq ana bëgg a yàq gi moo di lan bu ñu leen koñee ci nit ñi duñu ko mën a am bu ñu leen koñee ci date bi danañu jamuj ana lu ñu wax junni nit a koy mën a gas te ndawal la ñuy lekk teyit nag juróom benn at lañu digéeg yéen fu ñuy yem fa yem Cheikh Moustapha Mbacké woo Cheikh Ibrahima ni ko loo ci xam mu ne ko nangul daal di joxe juróom-ñaari téeméeri nit moom dong ñett téeméeri nit yi te Cheikh si bokk ko kon Cheikh ba mën a yàgg na wëlbatiku nag ni ko ndawal gi moom bàyyi koog man ñuy gas di lekk ndawal ñu dellu ni juróom benn at ñu gas ko ci juróom benn weer mu jóge njaarim ak si Touba kon financement bi Cheikh Ibrahima ko def ba tey kon la Ousmane doon defal yonent bi Cheikh Ibrahima defal na ko defal na ko Serigne Touba ndax Ousmane xare bu Tabuk kat métti woon na nit ñëpp jaaxaloon nañu ndax amuñu lu ñu def lu ñu lu ñu bàcc kër gi boo xam ne lu ñu yóbbu moo leen jox ay ngànnaay bàyyi fa dund rangooy ngànnaayam ànd ak ñoom ni fa mu jeexee may dolli ba xare bi jeex nii la Cheikh Ibrahima Fall def. kon financement bi mu ngi doon ci Seydina Aliou mi ngi doon ci Seydina Ousmane Cheikh Ibrahima defal na ko Serigne Touba Omar bun Khattab. mooy ki nga xam ni boo lislaam yëkkati ko mooma te loolu dañu ko bind Sëriñ Tuubaa ni bi i tahassasa diinu la i murtafi an la o fadailu an ha kala tafkaar ci daraji Seydina Omar la lislaam yëkkati ko kon Omar am na ngëneel yoo xam ne xel xalaatul takk ko Omar képp dugg ci lislaam yàlla yebal Jibril keneen amu ko xamal ko ni ko foiri sina Omar mii yàlla ne mboolem asamaani juróom-ñaar ñëpp a kontaan ñu defen ci lay mu ne ko mboolem ku ñu tànn kon ci ngay dégg ni asamaan ku ñu tànn newu fa mais suuf dañuy tànn yi ñu ci des yées mboolem ku ñu la wax kon ñi ñu tànn bokkuñu kon loolu itam gis nga ni Cheikh Ibra def ci wàllu Seydina Omar bun Xataab bi itaasasa diinullaahi murtafi'an Cheikh Ibra ko def ci Serigne Touba bi mu dikkee moo jëkk a rangaase na sëñ Seydina Omar defoon ak sëñ Touba yonent bi alayhi salaam tere ko joxe benn loxo tere ko tàllale tànk tere ko joll mbeeru tere ko lënge Moustapha tere ko toog moom tàllale tànk tere ko bokk moom ci ñam Omar ko tere xat adaba naa sa turran bi uda wa adaw bi ad yihi wa bi isnim ni ulam kon Omar yar nit ñi ba ñëpp ñu ko yaru xam na ñuy toog fi Moustapha Cheikh Ibrahima defar loolu Serigne Touba Cheikh Ibrahima dikki fi Serigne Touba gar ci bakkanam bank leen loxo yi banque leen tànk yi dee leen joxe ñaare loxo dee leen sujjóot dee leen toog toogin bu jekk bu leen ko fekk ci nit te woowu leen xa ab xaj du bokk ak borom bu dese leen nu lekk nii Cheikh Ibrahima ko tëral ci Serigne Touba kii mel nii nag andi fi Serigne Touba loo xam ne ku ne Serigne ngay topp boo ko topp ndawul saw toppin yàqoo kooku lañuy ñuy liggéeyloo bi sa liggéey bi Serigne Touba bëgg te bu noppee dañu naan nii lañ ko bëggee woon rek kon Baye Fall ak na. dañoo xamuloon lan mooy bay Fall waaye Cheikh Ibrahima moom ku ko dégganum dof nangu ngaa dof léegi te boo amee dof bu mel ni moom da koy jël doo ko génn kër gi kon Cheikh Ibrahima dofub sëriñ Touba bi nga xam ni yonent bi noonu na aksaru min ahlil jannati al bulaaw ñi nar a gën a bare àjjana mooy ñi ñu tudde dof dañu fees dell ak yàlla loolu nag ñu ngi leen koy dénk yéen ñii nga xam ni yéen ay jéebaanekat yi muy Maamun Ndaw ak Alioune Badara Ndiim yéen ñi Alioune Thion yabal te ngeen ni ndaw yu farlu di ñu yaro ak seen caméraman bii alhaaji Fall Sill ñu ngi leen di gërëm te di leen cant te di leen ñaanal ah nun nag sunu ñaan sax dafa woyof ndax ginnaaw sëriñ bi jiitu na nun teg ci sunu gos rek ngir amuk bëgg akuk yéene waaye yal na leen Cheikh Ibra fayal boppam yal na leen Cheikh Ibra jàppale te nu fekk ko te tal ko ah loolu leen sëñ Ndiaga Gaye doon wax nag sama woy jur mu kii xalifaam moo ko ko wax loo woon ngir bëgg ñu xam ni sëñ Madou Mbodj mosut a génn Cheikh Ibra waaw ci Cheikh Ibra képp la mas di ne moo tax fu ñu koy waxee mën nañ ko faa tudd ngir mosu génn sëñ ma du Mbodj moomu sëñ Abdou Say mii nag moo dem xalifaam moo tax sëñ Ndiaga Gaye yore kàddoom wax leen ni woote na ñëpp ngir ndigal sëriñ bi ne ñëpp wuy si kuy wuyoo Mbodj rek woo nañ la ci fii loo mën a am nga indi ko mbaa nga ji ko sa bopp ak sa doole. noonu daal la ñu waxoon. di wax ne rek mën nañoo def seede bu ñëpp meleen ni sa bàyyi. li Cheikh Ibra Fall bëgg fii dana am. dëgg la ndax Cheikh Ibra waxal boppam ne. Ah. sëñ Modou Mbodj day bu ñëwee sama kër. Ah. ba dem. Ah. kër gi dana bëgg. njaboot gi bég te dana fi bàyyi dépasse bu weer. loola nag defe naa ne bu ñu ko defee fii. li Cheikh Ibra Fall bëgg dana am. dëgg la ndax maam Cheikh daana wax ne. l'islam bu doonu kaamil la ah, ah. bu lëjee que sëñ Modou Mbodj sa baay lañ koy lijjantee kon kooku am na lu mu doonoon fi Cheikh Ibra Fall waaye nag dafa am benn laaj moo ma bëggoon sëñ Bara dimbali ma ci mooy dama gis na Cheikh Ibra Fall yàgg naa am ndam waaye amati na ndam amati na ndax sama xel daa dem ca Mbàkke Kajoor ah, tey jii la fa Cheikh Ibra Fall di liggéey moo doonoon cosaan la nga xam ne fa la yoonu murid sosoo taal boo gis mu tàkk ci yoon wi foofu lañ xemmee matt ma dëgg la muy fa Cheikh Ibra fa sëñ Touba nekkoon ca wéy juram te daara ja nga xam ne booba lañ doon xamlu mm-hmm. nekk seen wéju sëñ Mor Anta Sali ah. ba mu dem bàyyi sëñ Touba jiite daara ja mag ñi njëkk jaayante ci yoon wi ñëpp ah. àndoon ak sëñ Mor Anta Sali foofee lañ jaayantee Cheikh Ibra Fall foofee la jébbaloo ci yoon wi tey jii bërëb boobee ah. ci loxol sëñ Cheikh Jëmm Fall la ne di maam Cheikh Ibrahima Fall fii itam mooy cosaan yi ndax fii sëñ Touba genee jamono soriwul ma ngoog fii ma doon kër sëriñ bi sama boroom def xëy na ñu fi nekkoon seen yàlla saytaane eh, man leen cim xel ah, ah, ah. ba tax ñu samp fi bërëbu fowukaay Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moom yeesalkat la ndax moom la mu waxoon na ba mu laal suuf ba tey foofu la teg loxoom mu mel ne kon eh, ñaari mbir yooyu dajee fi Cheikh Ibra Fall tey yàlla tombale ko sëñ Cheikh jëm ban yëg-yëg nga ci am mooy cosaan la woon ca Mbàkke Kajoor démb ak cosaan lii fii ci Mbàkke Bawol démb la woon nagari waaw la woon mboodikaat nga xam nga dañoo wax ni yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw mm-hmm. tànk kanam rek la am mm-hmm. sëñ Cheikh jëmm bi mu ne ne xalifa yàggagul waaye lii wàcc ci kawam ñu di ko def kone xam na ni lu bees lu dikk la doxiinu Serigne Touba ak a Ibrahima moo mel noonu Cheikh Ibrahima daa waxoon ni buñ demee ba jëmi jamono fu sëñ Bamba samp mbër ma samp fa wet ga ñu ni tekk mu ne ah wujjeewu ma de waaye fu mu samp mbër mbër ma day am lu mu bëgg te la mu bëgg saa mbër koy mën a liggéey dégg nga wax jooju ba jëmi jamono se fu sëñ bamba samp mbër dinaa fa samp mbër ñu ne teg moo xam waxe doomu aadama ñu ne kii kat day wujjeeg sëriñ mu ne wujjeewu ma de damaa wax ne fu mu samp mbër mbër ma de am lu mu bëgg te la mu bëgg saa mbër ko man loolu moo tax sëriñ Cheikh Jëmbal Lang ak sëriñ Muntaxa Mbakke war a mën a def loo xam ni ah, dañuy xam ni ndigal lu bees ñëwaat na te bàyyi faale du ñu dellu gannaaw lu ñu xës ba song daañu ko daan lu ko waral sëñ Moussa Saliou dani ba mu demee Luxembourg dañu koo laaj ne ko yéen seen tarixa bi xanaa danañu dem bàyyi ñu di ko wate lu tax du ngeen ko wate mu ni ko wate day day am ñu bëgg ñu bari ñuy seet ka kan moo ciy gañe mu ne ko waaw mu ne ko fee ne kenn daa bëggul kenn bëggul kon yow sax danaan du man day dem ba sañatu ko bañ mu nangu foofa waatee amu fa. loolu daal suñu muntaxaa loolu <laughs> loolu moom feeñ suñu muntaxaa naa ne ba soñoon des ko yilif rek. waaw moom bi muy doon xalifa dafa daa mel ni. daa da ko gént ci nelaw. ndax xalaatu ko woon. ko wëlu wërewul woon ni ne lii yàgg naa ko bëgg. daa wane ne moom taalibi la bëgg doon ba kera mu fi bàyyi ko. mu far doon kilifa ak murit loolu ñàkk bëgg la. te teewul mu am ko. loolu moo waral loolu. dégg nga loolu. Baye Bara amaan beneen laaj. Mm-hmm. mooy fii. seytaane mm-hmm. moo fi sampoon ab drapeau mm-hmm. tey sëñ Mountakha dijjati na drapeau seytaane boobu. Ah. samp fi drapeau l'islam. Ah. ban yëg-yëg nga ci am. Ah, ndax kat la fi newoon. ak lii ñu fi waaj a def wute nañ. waaw xam nga seytaane moom ñàkk a dégg sëñ daa waxoon ni. wala lahu si siwal mu aaraba. li kulli aabidin bilaa mu jaana ba. seytaane amul ci soxla kenn ku dul kii fas yéenee def lu baax boo gisee Serigne Touba cosaanoo fii way juróom dëkk fii mu gane fi jamono ñëwal ba ko defi di di tal mbirum seytaane seytaane moom yee moo xam ne lislaam a ngi fi mu bëgg fee tuur ndoxam léegi nag sëriñ bi ne man saab dóor du teggiku ginnaaw moom defe neen dafiy ne ma dóor comme ndengeñ mu daal daanu ma samp fi sama mbir teg fi sama sama njaboot. ñu doo ko fi defal la li sëñ Tuubaa bëgg. seytaane mu delloo waxaat ni seytaane ci boppam boo bëggee xeex ak moom. dee ko fuglu ni ñuy fugloo sàcc buy ñëw ñun la fee lay jógee. fa daa fi anhu in ataa mu was wi saa bi sikri rabbina takkun mu xaddasa na ko na nga ko ci tudd sunu borom xoolal fii dañuy boole liggéey ak tudd yàlla seytaane amul fu mu jaar sax bopp taxlu dañuy boole liggéey ak tudd yàlla ak nag ci kanam tuuti teraanga yi dana gàññ ba nga defe ne noo sa fi am non la demee de waaw da ngay dem ba boo fekkee boo fekkee teraanga yi da nga naa ah ñii kay dañuy noos waaye boo fekkee liggéey bi xam ne ñu ngi bëgg a dee am déet noonu nag mooy àdduna Baay Faal moom dafa nangu li yàlla dogal liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla waaw loolu la Baye Fall fas yéene moom te moom lay def mm-hmm. loolu tax boobu boobu yëg-yëg laa ci am jërëjëf ah. euh, sëñ Mamour jërëjëf euh, Baye Bara Mbodj ah. kon euh, mbokk yi ñu xuusaat rek si liggéey bi ah. dem ziare yenn jëwriñ yi am si ñoom yenn kàddu incha allah mm. Baye Bara di la masawu coono bu baax te di la sant bu baax a baax nag wax dëgg yàlla si taxawaay bi si kanamu sëriñ bi noon de noo ngi leen sant bu baax nu itam tey ñaanal yàlla ñaan yàlla ci barkeb Cheikh Fall seen taxawaay gën a dëgër bu leen dara gàllankoor te lu ngeen yóotu te bëgg ko yàlla na ngeen ca jot te bu leen dara gàllankoor ci barke Cheikh Ibra Fall man daal loolu laay ñaan gudd fan wér mucc am ay xéewal na nga koo liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall yàlla nañu ko am. Euh, jërë ngeen def mbokk yi ba tey ñoo ngi fii ci euh, fi nga xamante ni mooy stade bi niñ ko ba niñ ko xamee ñun ñëpp rek mooy fi nga xamante ni bii fi la. Euh, ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha sant liggéey bu rëy bi Serigne Cheikh Jëm mi nga xam ne moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall te mooy fii nga xam ni terrain football la woon mu siiwoon lool ci Mbàkke waxtu wii rek bu ma sànni jot Serigne Moustapha Sylla xam ne fii fi sànn mbatt mu tak ndax daanaka di fi xew ci ngoon moo xam lamb moo xam course moo xam football lépp lu daan def ay caaxaan rek ci faw fii lañ koy defee tey nag Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, jot ci jot jot ci suuf si maanaam ñu jox ko ko jox ko Sëñ Touba mu ne moom day delloowaat lépp Sëñ Touba mooy fii moo cosaan li daanaka sëriñ bi yàgg na fi ci ay bokkam laataa muy sanc Daaru Salaam xam nga ne fii la jóge ci Mbàkke Bawol gannaaw bu mu jógee Mbàkke Kajoor kon fii am na histoire am na taarix armée lii ngeen di jàkkaarloo itam xam ngeen ne ñu baax ñu bëri tëdd nañ fi euh, ci ay wàllu ay nitu yàlla fii di bërëb fowukaay yi boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko soppi ngir fas yéene ko def daara ñu def fi jàkk waaye mu tekk ci loxol nag Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne lépp lu sëñ Tuubaa ne ci moom lay jaar muy sëñ Cheikh moo fi yàlla na fi yàgg ñu ñëw ci fekk fi sëñ Moustapha Sylla nag mu bokk ci murit yi nga xam ne ñoo kàddu sëñ bi di soññee ci liggéey bi xam lu bari tam ci liggéey bi ndax la ko te sabab mooy maanaam ku yàgg ci dara ba mu yàgg ngay fer loola ndax yàgg gaay tax mag ñi waxoon nañu loolu loolu moo feeñ ci jëmmam ji xam lu bari ndax am na ci loolu buñ koy naal ci kanam lay doon am na ci loolu buy sotti ci kanam lay sottee su defee nag ñu laaj ko eh, boobaak léegi ba mu tàmbali ba tey yaa ngi fi yaa ngi xëy yaa ngi wàcc di ànd ak kilifa yi lan mooy programme bi fii ak nan lañ fiy doxe saa ñu xëyee ci la ñuy wan waxtu la ñuy xëy waa waxtu la ñuy wàcc lan la ñuy xëyee ak lan la ñuy wàcc ba kere Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñëw te xeer bi jërëjëf sëñ Mamour ñu ngi lay nuyu di siyaare ak sa àndandoo bu baax bi Seydina Alioune ak ki yoru caméra bi Alaaji Fallilu ñu ngi koy nuyu bu baax moom it eh, di nuyu bokki Sénégal gépp nag waaye di nuyu bokki àdduna bépp nag eh, fu waay nekk rek ñu ngi lay nuyu te di la jottali ab siyaare Euh, di la ñaanal jàmm ca di sàkku ci yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel télé bi euh, ngeen ñaanal sëriñ Serigne Mountakha Mbacké sunu borom yàgg ko fi lool ci defal ko ak wér waaye ñaanal ko jàmbaaram ju baax ji Serigne Cheikh Jimba Fall mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Cheikh Ibrahima Fall sunu borom guddal aw fanam ca doole ak wéram waaye naka noonu nag ñu ñaanalaat nag taalibe yi nga xam ni ñooy njabootu Cheikh Ibrahima Fall ak sopp yi nga xam ni dañoo sopp Cheikh Ibrahima Fall te yaakaar Serigne Touba te lu Cheikh Ibrahima nekk lu nekk ñu necca ñooñu ñëpp kon ñu ngi ci biir ñaan gi sëñ Mamour mm, ñëw nga foo xam ni fu jar ñëw la ah, di gëstu si loo xam ni lu jar a gëstu la bëgg ko tasaare rek ngir yàlla jëmmi Cheikh Ibra Fall ba ku xamul woon xam ñi xamoon it gën a xam loolu mooy lan ni nga ko waxee ñoo ngi fii tey ci Mbàkke Bawal ci ab liggéey boo xam ni dafa bàyyi koo fa mu daan bàyyi koo muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi toog tey jataayub Serigne Touba ñu ñaan suñu borom mu yàgg ko fi lool ci defal ko ak wér ñëw nag ci kim daan ñëw muy kan Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jëmb ñoo ngi ñaan ci daraje maamam Cheikh Modou Cheikh Ibrahima Fall ñaan ci daraje baayam ba Cheikh Modou Moustapha Fall ak ñi wutu ñëpp suñu borom guddal aw fanam ca defal ko ak wér mu jot lam daan jot nag woote ñam daan woo ñan la daan woo ko koo xam ne sa yaakaar daan nekk ci Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh jëmb jox jot na ndigal jëlee ko sëñ Muntaxa mu jëm ci stade bi stade nag sëñ Mamour wax nga ko fii de toll na jamono ko fi ñëw waxtu wii boo sànnee mbàtt mu tag waaye boo fekk na kenn tagul ko dul seytaane waaye tey ji bu mbàtt bi tagee ki ko tagal mooy Baay Faal rek moo tagal mbàtt bi ndax mbàtt bi du wàcc faaw mu dal ci bopp wala nit capté ko la tax muy ñoo loola am nag mooy ndigal la nga xam ni moo ñu Serigne Cheikh jëmb ci amuñu lu dul Cheikh Ibra Fall ñun Baye faal Serigne Mamour maa ngi déglu say waxtaan yu bare bare ñoo ngi ñaan sa borom nag mu gën a nàmm sam xel ca doole sa kattan bu baax gën a leeral saw làmmañ Baye Fall sëñ Moustapha Fall Fallilu jëruñu sëñ Fallu Fall moom sëñ Morawinta saa su ne mi ngi koy wax Baye Fall amul lu may ndigal Baye Fall amul julli Baye Fall amul koor Baye Fall amul natakasa Baye Fall amul aj màkka lii rek moom lañ am ba bërki démb keroog altine bi nu tàmbalee ba ma xëyee man de maa ngi fi ñëw juróom-ñaari waxtu waaye bi muy egsi daanaka fekk naa miir bi jeex ma nuyoo moom am kersa waaye am geneen kilifa gu ma àndal mu daan ne du du du taalibe yi ñi jiitu rek la ñi jiitu ñoo fàtte lan waxoon wala boog dañ leen ko fàttaliwul waaye ñi toppe ñoom wax dëgg yàlla yont bi ñu ci bare bare dey seen jaan wàcc na li seen jaan wàcce mooy lu sëriñ bi digle lu ne fas yéene taxaw ba loolu am ndax sëñ Mamour bu fekkee danoo nodd fajar nga dégg ko ni ab jullit nga yaakaar yàlla ak yonent bi yaakaar sëriñ Tuubaa Seex Ibra Faal ñu ñodd fajar nga ñoddi waat sa mbalaan la tax nga ñodd ko xam nga mooy gëm Cheikh Rafal ca doyloo ko kon boo déggee baatum ndigal na nga xam ne ko woote woon ca nodd ga ba nga ñoo di sa mbalaat moo woote waat kon nag loolu la sëñ Moustapha leeral leeral kilifa goo xam ni dëgg yàlla yonte ba mu ko tàbbee am noppam ak tey xam naa bu fi jiituwul sëñ Moustapha saa yu sëñ Moustapha xëy see rek da koy daal di gis loola nag du lenn lu may xam ne nii la ab Baye Fall war a mel yaa ngi gis mbooloo mi altine leen ñëw daal leen miir bi fekk booba xel mu li ni sëñ Moustapha di wax sunu xel yi buñ ko wudd nan ko bàyyi muy dox nan ko bàyyi muy dox ji yi tax muy wax nag mooy dana bëgg fu ndigal jugatee ñu doxal suñuy xel xam ne lii moo war a am dana wax nan toj dañ fi ñëw toj miir bi gas ko ba jot de eh, fondation bi dindi ko daaneel tribune bii nga gisoon ci sama ginaaw te gis nga gaay ba tey la ca dese ko néew ña ngi koy rukk noonu ngir ba mokk ñu dindi ko ba nee ba boori ngoon am na ñu déyante ci seen biir waxtaan ak sëriñ si fekk sëriñ si xalaatoon nañ ko danoo wax ne ñaar alxames ji mujj ci weer wii lan war a teg xeer wi bu dindee loolu ba noppi waaye ñu diggante bi ñuy toog gi ginnaaw jotoon nañ baatam digal bu nu sëriñ bi mayee ñun taalibe yi ñuy toog ndax lii nga gis ñu koy def muy móol bërki démb ca ngoon nañ ko tàmbali démb ci leen xëy tey ji ci leen xëy mën naa am bu ñu toogee fukki fan wala fukki fan a juróom bala ñoo yeggee ci bis bi nga xam ne ci la war a teg xeer wi sëriñ Muntaxa di ñëw sëriñ Seex Jëmb ñëw njabootu Seex Rafal gépp ñëw bala ñoo yegg ci loolu lu war a soxlawoo ci ay móol bu lépp sottiwul lu ëpp dina sotti loolaa waral ñu far wéyal liggéey ba toog fii nag fer suuf si ñëw na xeer bi ñëw na keesi mool yi sëñ Ablaye Fall Fallilu muy sëñ jiili mi ci kanam mboolo mi euh, di di doxal liggéey bi léegi rek la mujjee waxaat ak suñ Moussa ne ko ginnaaw mboolo mi doy nañ ko te liggéey bi sunu sañoon ci weer lañ koy jébbal boroom ndax Cheikh Ibra kat ku ne xamoon na pas-pasam ku ne xamoon na ak dogoom ku ne xamoon na ak bëggam waaye ñii de kenn daa mënta dab Cheikh Ibra Fall waaye ñoom ña ngi ca tànk ya ña ngi ci yoon fas yéene dem rek ku leen dimbale nag ñu dem yónnee yónneewaat na ay kees ngir bëgg a dolli liggéey bi ba nu mu gën a gaawee ndax gaaw gi rek moo gën a sëriñ bi gaaw gi nag bi mu gën gënal sëriñ bi noppi da war a boole baax day gaaw ba noppi baax loolu sëriñ bi bëgg kon liggéey bi altine leen tàmbali woon ngir toj ko waaye wéyal nañ ko nag far dañ ciy nekk ba keru ñaan tey yii lañuy ñuy ci la ñuy xeer bi loola nag koo xam ni yow mi barki démb nga jóge ci tukki ba ngir doxi ay jéego ngir lan Baay Faal gi rek ak yoon wi Sëñ Tuubaa rek ngay dox sax mooy mooy mooy Baay Faal gi ndax Baay Faal génnul Sëriñ Tuubaa ànd naa Ali mii gàttan ñu ay murit waxtaan ak ñoom ñi fab seen addiye di leen ko jox ngeen di ko indi fii ci sëriñ bi loola nag kon sëriñ bi mi ngi wax ni képp koo xam ne sa yaakaar ci Cheikh nekk lépp loo xam ne jàpp nga ko lépp loo xam ne jàpp nga ko ah soo ko mënee bàyyi na nga ko bàyyi soo ko mëntu bàyyi nanga ko yolomal ñëw fii ba sëriñ bi gis la ndax tàmbali na koo xam ne nag ab baay faal nga amoo du lu ndigal ndigal jug na fii ni ci waay mën a bokke bari na ciment baax na suuf baax na fer baax na murid yi ku leen seen xam ni ndox mu sedd baax na ci ñoom kafe baax na ci ñoom añ baa nga nee di doog a wàcc sëriñ Cheikh Jëmb Fall yor ko yokku ku ñuy wax Mbaye Diop ci ndigalu ma Maguette Niang mi nga xam ni mooy jëriñam añ baa nga noonu ne xam naa dana fa yegg ci kanam ngeen gis ko boole kook fal Fallou Fall jëriñ ji sëriñ Bassirou Fall alxuraan sëriñ Cheikh Cokke sëriñ Saliou Fall Farsaw sëriñ Cheikh Assou Ndiaye mboolem njabootu Cheikh Fall gi am Amdi Khady Fall jàmbaar ji yebal na fi ay rakkam taalibe yi ñoom ñëpp nga àndandoo di xëy si ci ndigal lii sëñ Talla Fall mu sëñ Ablaye kenn manqué wul waaye nag mboolem njabootu sëñ Abdourahim mboolem njabootu sëñ Mouhamadou Yeddaali sëriñ Fallilu Fall Fatikan sëriñ Moussa Fall Fatikan kenn desul ñëpp a ngi dar dar sëñ jëm ne ci ginnaawam fas yéene lii nga xam ne daal dañ ko koo jox muy mu mu mu di liggéey sëñ Cheikh jëm am ci ndam na ko bàyyi mi daan maam daan ko amee magam mi baaxee daan ko amee ñu ngi koy ñaanal ndam loolu ñu ànd koog moom ba jaajëf ji mu ci wut ñun ñëpp ñu bokk jaa déggandoo liggéey bi nag nekkul ni ñëpp mën a ñëw toog ndax am na ñoo xam ne faaw ñu dem ñëw waaye am na ñoo xam ne sëñ Mamour keroog bi ñu fi tàbbee altine ak tey lu ñu génnaat ci liggéey bi li feek li feek dégguñu jërë jëf wala ñu ne baat ba ñëwoon ñëwaat na muy kaay leen bu ñu waxaatee ñëw leen lu ñu waxaat su boobaa ñu dégg ko waaye liggéey bi daal moom door na te gars yi duñu fi jug mukk ci li sëñ bi bëgg amul ñoo ngi ñaanal nag. kon kon loolu liñ siy déggee mooy euh, man ak Baye Fall laa ma ñëw barkeelu ab bés si liggéey bi sama doole wala barkeelu benn junni loolu moom du du du yëf yi Baye Fall. déedéet loolu loolu suñu sëñ Aliou du say wax du samay wax Cheikh Moudou Fallou Fall yàlla na ko suñu borom doole ay leer dégg naa ci ay kàddoom wala dégg naa ci ñu dégg ci moom ku mosaan ñëw fekk ko ci xelkom ndax ñun mën na wax ci xelkom lan dare fa lan dale liggéey ku mos a ñëw fekk ko fa ko damaa barkeelu si mu nu barkeelu loo bokk loo bokkul lii dañ cee bokk yow li nga wax ne ab Baye Fall mooy dëgg sëñ Ngunda sëñ Cheikh Ngounda moom sëriñ Ngounda moom maam Cheikh Ibra Fall mooy sa kilifa ku ne xam na la ci yoon wi télé bii boolewul ak yoon wi télé bi daa ñëw fekk la ci yoon wi sëñ Maodo mi télé boolewu koo yoon wi télé bi daa ñëw fekk ko ci yoon wi ñu tuddee ko seen maam nag ngeen yaakaar Cheikh Ibra Fall ànd ak télé bi di liggéey Cheikh Ibra Fall fii amul barkeelu ku xëy si da ngaa xëy si ku am looy joxe da nga koy joxe li feeg yëggul sëñ bi yëwul kenn li feeg yëggul sëñ bi néewul laajatuma kenn kon lu waay am te bëgg mu raw fabal fab ko jox ko suñ see jëm mu defal la ko fii koo xam ne jumaa ji rawoon na la ngasum raay bi raw la carrière bi raw la yokku jumaa ji raw la jumaa jaa ngi nii ka jox woon loolu rek moo jox joxwaat lii kam ko joxoon lan ko joxaat sëñ Tuubaa ko jox woon moo ko joxwaat fii Cheikh Rafal moom ko joxwaat yi moom la ko joxaat fii ndax kat kii ko wuutu sëñ Maodo mën na na ko gëme ci moom sëñ see jëm mii mënees naa gëme ci moom ni mooy Cheikh Rafal ndax la ko dala ci sëñ Modou Moustapha Fall ba ci sëñ Modou mi mu liggéey bi ma gën a yéem ci sëñ Cheikh Jëmb mooy koor gi liggéey bi ma gën a yéem sëñ Cheikh Jëmb mooy koor gi ndax. ceeb fa ko fekk ak fa mu ko fekk ak ko yóbbu ca tuugul fi mu fa mu fa mu toog na jugu fa loolu nag ngërëm yu bari dina ko waral te koo jëlee ci sëñ Modou Moussa Fall baayam ba ci sëñ Modou Ndindi Fall magam ju baax wut ku fi mas a toog di kilifaam rek sëñ Cheikh Jëmb an naa yow ba nga gërëm ko moo tax bi mu jotee lenga yi toog ci toogu bi fa mu tëdd lay tëdd ci li mu bëgg dina am. kon da kon daal képp kuy werante toog muy dox ñëw ñëwoo ci sëñ Cheikh Jëmb. képp kuy werante toog muy dox ñëwoo ci sëriñ Cheikh Jëmb ku ñëw ci sëñ Cheikh di nga xam ni fa mu toog la toog lépp dox maa ngi dégg ci kenn ku ko jege muy sëñ Omar Dumbuya booba maa nga ca dañoo yóbbu ndogu bu ñëw ñaan gi gaaw lool sëñ Omar laaj ko sëñ bi lu waral lii mu ne ko li ma yor damaa jege li ma yor du jeex te te te te loolu soriwu ma kon koo xam ne damay sëq jox la kon ku bëgg sa aajo faju ndax aajo yi faju nan waaye nag dafa am loo xam ne dàqante nan ni nu dàqante nag koo xam ne bëgg ngaa bokk ci ñuy dàqale da ngay bañ a tàyyel te bañ a diib te mel ni tey ngay doog a jug nan laxasuwaat fabuwaat xam ne amaat nañ ndigal ndigal lu bees teq ñu nii ku bëgg a yees ñëwal ku bëgg a barile ñëwal ku bëgg set ñëwal ku bëgg wér ñëwal ku bëgg jàmm ñëwal fii la jàmm nekk ndax fii la ndigal li ñëw seytaane ku ci bëgg mucc nag da ngay dem fa mu tuxoo seytaan taxoon na fii fii stade. mais ma mais sëñ Moussa nan nga yëgee dëkk bii di Mbacke yow fi nga dëkk xam nga fi lu bari fii cosaanu yoonu murit ndax gannaaw ba sëriñ bi jógee Mbacke Kajoor ñëw na fii Cheikh Ibra Fall na fii suufam a ngi fii soriwul dara xalifaam fi la dëkk ak yi xew Mbacke mu mel ne Mbacke dañ ko génne ci Touba ban yow ban gis-gis wala ban yëg-yëg nga am ci tey lii mel na ne lu bees la nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha taxaw na ngir Mbàkke moom lépp lu nurub safaan wala luy nuru mbirum saytaane jóge fi ndax lii ab tàmbali la moom. xam nga sëñ Mamour Mbàkke dafa jege Touba. ñuy wax ne diggante Mbàkke Touba juróom-ñaari kilomètre waaye Amérique gi Allemagne Japon Tunisie mboolem réew yi ba France nga bàyyi ko barki démb balaa Cheikh Rafa la bàyyi fépp nooy balaa Cheikh Ibra bàyyi fépp dina nooy. loolu moom xam nañ ci dara. balaa balaa Cheikh la bàyyi fépp dina nooy. ndax la am bërki démb ca Ndakaaru muy Masaalikul Jinaan ku ne xam nañ ci àdduna ba àdduna sosoog tey réew mi ñu ne di Sénégal bis bi toll noonu fi am ca ba mu ci bis booba lii lëj bi amoon fii keroog la li ndax fii la doo ñëppal sëñ Tuubaa ci armée li fi mu gane àdduna ngi ne sama ginnaaw mu dul kilomètre ñu génn fii daje fi ngir daje fi dajale fi seytaane foo ba noppi génn jàkkaarloo barab yi ba ñu ñi danoo xamul ba ñu ñi danoo xamul fi na xamal nañ leen xamal na leen na sëñ Muntaxa def ndakaaru nooyal ko ba mu nooy mokk na rumbux leer na naññ ñëpp dinañ seen jëfi sëñ Tuubaa ji dootul nëbb kon Mbàkke Bawol gii jige jige Tuubaa lool ci mënoo ne Tuubaa ba noppi waxoo sant wi gii aw tur tur wu ne sëñ Mamour Mamour nga tudd ndaw nga sant boo yemee ci sëñ Mamour doon kenn du xam kooy waxal waaye boo ne sëñ Mamour ndaw làmp faal ñëpp xam ne yow waxal Touba gee bala ñoo xam lu mu doon Mbàkke Bawol gii da nga ko cay boole kon Mbàkke gii ci Touba la bokk lépp lu fi nuyoo ay caaxaan lépp lu fi nuyoo ko fo dina fi jug ndax Touba bi dàqoon fa ñëpp wàccoon fi campé fi da nga fa gisati kenn keneen fi jëloon ba tey jugu fi ci sëtee doon maamam xoolal lenn ci baar yi fi nekk lenn ci stade kii yeneen terrain yi football yi fi nekk cinéma yi fi nekkoon dégg nga maam euh, mi mand mi ci ma nga xam ne du jeex agresseurs yi ba ci hôtel yi nga xam ne ay caaxaan lañ fay def ban yëg-yëg si Moustapha Sy la am ci loolu ngir mu génn ci Mbàkke ba Mbàkke mel ni Touba. loolu dina mel ni li sëñ bi waxoon rek sama diggante ak tubaab bi walu dëgëj la ak wóor dina mokk rumbux ci kenn dégg kàndang diggante dëgëj ak wóor dina mokk rumbux ca kenn dégg kàndang Mbàkke ni mu war a mel dina ni mel lii nag day sottee ci kii la jëlee sottee ci ñeneen sëñ mu taxaa fi mu jëlee li li sottee ci moom mooy jumaa ji naan na lii lii dina sottee ci moom saa yu fégalee yàlla na yeex keneen dina jël fu stade bi mën a tuxu fu hôtel yi mën nekk ki ko war a dindi bu ñëwee dina ko dindi kon li ñu bëgg li ñu bëgg xam daal mooy kon ñi daje si waaru wi mooy ñi nga xamante ni sëriñ bi da leen jox ndigal ñu toog di ko saytu ak ñi nga xamante ni dañuy dem sa waar wa ngir indi ñu si jëf daanaka ñu mun nañu wax ñooñu rek ñoo ak ñi nga xamante ni ñoo féete se waañ wa maanaam ngir euh, nandal ak dundal ñi nga xamante ni ñoo. waaw loolu loolu li ma la wax léegi rek sëñ Moustapha fa Falilou ñoo ngi ñaan suñu borom mu gën a ubbi ab dënnam gën a leeral aw aw aw làmmañam ndax boo déggee li muy wax naan waa waañ wa ñoo fi bàyyi waa waara mooy waa tool ya ña nekk Ndakaaru ñekk Italie ak fu waay mën na ne ci réew mi. te wóor na sa tànk gàtt na mën naa gudd. yónneekaay yi daal moom mi ngi fi te lu waay joxe it mu tàbbi lu waay joxe dina tàbbi ci liggéey bi lu waay joxe rek dina daal ñëw ci liggéey bi kon daal sëñ bi daal ci gàttal góor a jigéen mag a ndaw ku sa yaakaar nekk ci borom Touba rawatina Cheikh Ibrahima Fall liggéey baa ngi nii ab Baye Fall nag du waxi kese da koy jëf jëf jaay daal a ngi nii lu waay def daal gis ko lu waay def gis ko wal ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ci dara ji Serigne Cheikh jëmm. barkeb Cheikh Mouhamadul Mountakha barkeb murid yi réew mi nag ñu ngi ñaan suñu borom def fi jàmm réew mii ñu ngi ñaan suñu borom def fi jàmm adduna bi bépp ñu ngi ñaan suñu borom def fi jàmm liggéey bi attan na ko ndax jamono ji gis nañ diggante Iran Irak ak états lool loolu lépp Cheikh doole ndax fii dañ ko bëggoon a def ni foofa waaye ba mu beñee loolu amul mu noppee fa foofu la jëm rek léppay nooy Seydina Aliou jërëjëf Ndié. ba tey ñu ngi fii ci waar wi fekk nañ nag ñooy gaase ciment bi. jëwriñu moolkat yi moom waaw yaay jëwriñu moolkat yi. waaw kon yow lañ doon wër fan la mool yi toll. mool yi xëy nañ tey ñetti mu ne mi ngi dox loxo bu baax ñu ngi war a mool tey jii juróomi tonne téeméeri saako démb mooloon juróom ñaar fukki saako. tey téeméer saa ko doon bëggal moo incha allah liggéey bi mi ngi dox tubaarkàlla mu ngi ñoo ngi sant bu baax sant sëñ bi te ñaan sa borom wéral nu ba li nañ bëgg a liggéeyal bi lépp sotti ci wàllu seera Rafa. muur rek lañ waaye muur rek lañ defagul maanaam am amatagul leen lu ñu def fi nekk gaas yi muur rek. waaw waaw muur rek lañ def fi mu ne. dañu bëgg ba ba sëñ bi ñëwee yi bi ñëw bu déllusé bu sëñ bi ñëwee bu tegee xel bi fekk bu ñëwee fekk lu am lu mën a lu mën a tabaxee. li ñuy mool firnde rek waaye moom yëpp boo ko dajale woon tey jàpp nga nu muy toll. mooy mooy maanaam firnde xam nga mën nu muy toll. nga nu mu toll. ndax mën nga maa wax dosage bi nu mu fan la maanaam ban dosage la. comme dosage bi benn saako ciment bu ne a fukki biréeg ak juróom la koy def benn saako ciment bu ne ñaar fukki biréeg ak juróom la koy def moo di day ànd ak xeer. mu day ànd ak xeer waaw. waaw qualité bu baax boo xamante ni moo a baax ci moo gën a baax démb ak tey la. waaw lépp ko mool. waaw. ndax ndax liggéey bi dañ ko teg ci loxol euh, benn entreprise wala dañ ko teg ci loxol comme chef benn chef de chantier wala lépp ci la gën. lépp lépp lépp lépp daa daa ma teg moom. lépp Cheikh Cheikh Ibrahima ngeeg lépp. Cheikh lu mu soxla rek mi ngi ci biir. lu mu soxla rek am nañu ko mën ci biir liggéey bi waaw. sëñ Mortala Diop yàlla dogal ni ngeen di euh, maçon sëriñ bu woote liggéey bu toll nii nga xamante ni li si ëpp fi mu ne nii wala fi ñu toll si liggéey boog liggéeyu maçonnerie la boo leen gëstoo gis soxna yi tout tànk yi mag ñi ndaw ñi ñëpp takk seen ndigg maanaam ñëw di leen jàppale si liggéey bi nga xamante ni yéen seen euh, seen profession la ana nan la leen di def. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Aliou Badara ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mbokk yi ñuy seetaan yëpp di ñaan sëriñ bi mu yàgg fi te wér Cheikh Mountakha ak njaboot sëriñ Touba gi di ziar sëriñ Cheikh Jëmb faal ak njaboot Cheikh Fall gépp di ziar yëpp di kontaan bu baax ci liggéey bi comme ni nga ko xamee rek muy liggéey ba nga xam ni Serigne Touba moo ko jox Cheikh Ibrahima Fall ak njaboot gépp ñu nekk ci nii comme ni nga ko waxee ñu fas yéene koo tàmbali nag alxames bi di ñëw bu dellusee sëñ bi te xeer wi waaye ni gaañ yi yàkkamte gi tax na ne ci móol yi yi nga xam ne moo war a wër miiru kër gi ci lañ nekk nii fi mu ne démb am nañ ñaari junni yu manqué te fi mu ne amagul ne sax lu romb lañ amoon démb waaye comme ni nga ko waxee rek liggéey baay Fall moom moo demee noonu kër Cheikh Ibrahima Fall bu nu wootee ñëppay jóg góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi kër génn kër du des looloo waral gis nga gone yi ak soxna yi ñëpp suñ wootee ca xeer ya soxna saa soxna yaa nga ca suñ wootee ca móol ya soxna yaa nga ca gone yaa nga ca noonu rek lay demee ndax liggéey moom moo laaj loolu liggéey bu doon sànce maçon yeneen yi kenn fay nekk wala ñaar wala ñett waaye bu dee liggéey wooteb Seera Fall nag suñ Morinta Fall da daan wax ni ñëw leen junne indi leen seen i dab la te doo demul sa ndab demul kon moo tax ñëpp àndandoo ñëw gone yi ak mag ñi góor ñi jigéen ñëpp ngi fi hmm. loolu daal moom moo waral waaye bu ñu ñëwee lu ñu bëgg-bëgg it maanaam yéen la ñuy déglu yéen ñi nga xamante ne yàlla dogal na seen xam-xam moo màcc si mbir mi waaw fenn fu ne kenn nga fa boo xoolee muulkat yi fi ne commerçant yaa ngi nii di jaaykat yi ci sëy yëpp a ngi fi maanaam liggéey bi nag moo demee noonu suñu seerafaar wootee moom ñëpp ay ñëw ndax ñee di takk feer ba fi ne ay ministère fa te teewul dañ koy teg ci yoon waaye fenn fu ne dañ fay teg nag koo xam ni bokk na ci professionnel ya fi ne mool yee la kees bari bari fenn fu kenn nga fa koo xam ni moo xam liggéey ba wàllu milance benn ñi defit fu ñu fa dem kenn nga fa koo lu mel ni bàyyi ceen lu ñoom ñoo yor liggéey ba su ko defee ñi ci des ñeeri buddi xam nga loolu seen liggéey la waaye diggante nag milance bi ak ŋàbb kees yi yóbbu moom bàyyi fal yi ko man góor ñi jigéen ñëpp a koy def waaw loolu moom loolu la liggéey bi tax kon fi ne nii li fekk euh, ñaar bis bi nga xamante ne si la sëñ bi joxe ndigal ngir ñu teg xeeru njëkk wi yéen moom yéen a ngi si ndigal li wala ñun ñu ngi si ndigal li mhm. ngir rek euh, maanaam def mool yi mhm. nga xamante ne bu lii day wane ni kon liggéey bi moom day taxaw waaw day déroulé rek moom du taxaw fi ne bu Seera Faal moom bu xasee wootee amul benn bis boo xam ne dañ koy jël pause wala bis bu ñuy delluwaat dafa am démb ku doon laaj sax naan kañ lay egg ma ne ko liggéey Seera Faal Sëñ Tuubaa amul contrat moom ndax liñ la wax ni la moom ngay liggéey bu demee ba egg Seera Faal day woowaat ki fi nekkal Sëñ Tuubaa mu ñëw xool bu xoolee nag bu melee ni ni xam ne foofa la fa mu bëggoon fa la yem mu mu ñaan su fekkee am na leneen ciy dolli mu dolli kon sëñ ñoo taxaw ni fii lay yem wala nii lay mel sañ nag nii lay tàmbalee waaye amuñu fu mu yem moom fi ne ni ko sëñ bi bëggee rek des na ko defee noonu incha allah daal bëgg nañ moolee ñuy weer bu subaa ñu jël ko mu topp taatu miir bi nag ñu bàyyi ko fi nekkaat ci mool kër yi continuer liggéey bi rek waaye amul benn bis ko toppalewaat bu suñ eh, tuwaa xaar plan yi. kilifa yi joxe ndigal si plan yi. bu ko defee rek ñu song li nga xamante moo war a am si biir barab waaw plan bi moom comme ni nga ko waxee woon rek sëriñ bi bi nga ko waxee si sëriñ Mountakha def ni jàkka ji lay ñëw teg si xeer bi waaye wàllu plan bi nag moom Seera Faal ko suñ tuwaa bëgge kon da ko bàyyiwaat suñ biir gars yi ñi ngi toppatoo plan bi daa génnagul waaye ñu ngi koy toppatoo incha balaa ñëwit lu fi war a defit diñ ko def ndax gis nga tabax yi daane nañ ko yéen fi war a xadd yële dañ koy xadd ngir def ko ay magasin yoo xam a yi noonu loolu na ko bàyyi te leneen digal daa ñëwaat hmm. Hmm. ban jàngat ngeen am si li jiitu barab bi maanaam li fi nekkoon di barab euh, ba tey jii euh, Serigne Touba Serigne Mountakha yàlla na sunu borom yàggal ko fi loolu te maa wér gis barab bi ni barab bi nañ ko jox Serigne tubaa tey jii ñu jox ko Serigne Touba. waa jàngat bi mooy Serigne tubaa moom daraam du asaar ndax boo xoolee barab bi ngay seen doomam a fa ne fii doomam a ngi fi ne muy sëñ Maodo Lié daal barab yii ngay gis Mamor Diarra fi tëdd yii itam bàpp gala kon njabootu Serigne Touba rek ñoo nekk fii kon fii moom da li fi nekkoon dafay yëlloowutoon ak mu ne fi waaye nag jaar-jaar la bu fi jaar boo xam ne nit ki ci lay xamee liggéeyu Serigne Touba nga xam ne ñi fi jaar bari na waaye Serigne Mountakha la ko suñu borom jagleel moog Serigne Cheikh Jëmb ne mooy ñëw nag gis ni njabootu Serigne Touba gii fi ne lii moom yëllawul barab bi te diggante bi nga ko ko waxee ak bi mu ci doxee daa yàggut mu doon ko Serigne Touba kon dafa mbir mi daa dellusiwaat ci loxob Serigne Touba ndax pàkk bi fee wax ni fa la Serigne Touba gane àdduna kon fii day mbir day bay pàkkub Serigne Touba lépp Serigne ko moom kon dafa delluwaat rek daa delluwaat ci loxoom sant nañ baax nag waaw sant nañ yéen ñi ngi leen di sant baax di siyaar jëwrin bi sëñ Maamoun ñi ngi leen di siyaar baax tey ñaan suñu borom dolli xéwal yi baax a baax yokk tax feexe sëñ Maamoun liggéey bi rafet na sëñ Aliou kontaan nañ baax sëñ Cheikh jëmu nag na ko ñëpp ñaanal mu gën fee yàggate wér waaw mooy Cheikh Ibra kat na fi yàggate wér waaw dégg nañ ko sëñ Maamoun yi da koy wax lu bëree bëri na fi yàggate wér waaw kontaan nañ jërëjëf ñu ngi si waar wi rek waaw waaw Fandika ñoo ngi ci waar wi wax dëgg yàlla tàmbali nañ ko keroog altine ndigal li xam naa nag ndimbal lan nu ko defalee ndax ku xam kër Cheikh rek xam leen ci ndigal xam leen ci joxe addiya ak jëf ak yar ak teggin yàlla dogal na nag at yi yëpp murid yi am nañ ci xememteef am nañ ci ak bëgg am nañ ci ak jublu waaye yàlla dogalu ko woon ba ren jii nag sëñ Mountakha moom defal nu am ngatandu ci ndimbalam ak yërmandeem ba tabbal ñu fii nga xamante ni moo doon stade bii nga xamante ni barab bi ci saayir wàllu jongante ci mbirum àdduna képp moo taxoon ñu ñu taxawal ko tey mu nekk ci gox boo xamante ni yàlla daa dogal njabootu Sëñ Tuubaa gi dañ fee nekkee rawatina barab yu mag yi nga xamante ni mag yi mag fi la tëdd nga xamante ni ñaare bu nit ñi daan denc fee ca barab ya stade bi bu ñu kenn jongante ba ba am ndam ci sa morom yuuxu yee dañuy gàllankoor sax ña nga xamante ne ñooy denc kon lii moom ab lijjanti la ci baaxuk sëriñ bi ak ndimbalam ñu jëlaat ko nag tàbbal ko ci loxol Cheikh Ibra pour mu dekkalaat barab bi ndax barab boo xam bu ñu fa jëfee lu yàlla gërëmul ku dul Cheikh Ibra mënut a dekkal barab waaye bi fi Cheikh Ibra tàbbee nag ku ne xam na ni barab bi buñ ne woon nii barabu stade la woon ca ca fekke woon njëlbeenu démb ga mënoo xam lool waaye fi mu doon nii turu yàlla wi xasida yi góor yàlla yi wàll yu ñëpp a fi daje fas yéene jëfe ndigal sëñ bi bàyyi ay tere ci daraje sëriñ bi lu yéeme mooy mbooloo mu toll nii nga xamante ne li si ëpp si ñoom seen i at soriwul maanaam daje fi kon niñ ko doon defee kon ñi ko doon def si saayer sa nga xamante ni foofu saa su ne bu ñu dajewaan football bu noppi dégg nga xiiroo ŋaayoo mhm. yu ne da nga fi dégg mhm. fii mbooloo mu toll nii daje di liggéeyal yàlla doo fi dégg sax ku mer sàkkantuma laa ko fi jàppante naka nga ko jàngate waaw euh, sababu loolee nag bokk ak bëgg bokk ak jublu bokk pas-pas moo nu may lool ndax bu ne mbooloo mooy doole boo demee ca làmb ja fekk fa mbooloo boo demee ci stade ba fekk fa mbooloo waaye lay waral ñoom bu ñu demee ba lañ doon def jeex la waral ku ne di jël ngànnaay jëmale ko sa moroom kii mën naa lor morom ma kii mën naa lor morom ma loolee lépp la ko waral mooy ñàkk bëgg bokk ak bëgg-bëgg te bokkuñu ak jublu kii day xëcc jëm fi kii xëcc jëm fi mooy waral bu ndam jamee fee ñii wël bi di ko jàmmaarloog ñële ñi finnaalante bëgg lu ne mën caa xew waaye fii nag benn baat moo f fi dajale muy baatub Serigne Touba mu tabbi kër Cheikh Ibra Cheikh Ibra woo fi jaam ñi te ku ne bi ngay ñëw li nga bëgg noonu nga ko bëggale sa morom li nga am pas-pas def ko noonu nga bëgg sa morom def ko kon yéen yooyu ak bëgg-bëgg yooyu ak pas-pas yooyu moo nu fi dajal nga xamante ni rak bo tuut tànk mag ku diggu doomu ñëpp ku ne da ngay jàppee sa moroom ni kii sa jëmm la loolooy waral maanaam lu ci ëpp fitna du fi am dara du fi am lu dul jàmm ak salaam ak jëfe ndigal li ba mën a fexe ba làq ngërëmal sëriñ bi tey ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér loolu moo waral jotaay bi nii daal waaw wóor na sëñ Fallou waaw Fall sant nañ baax a baax yaa jëfati rek ñu ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci daraje sëriñ barkeb Cheikh Fallou Fall jaa ngeen jëfati murid ñun ñoo féete fii ci ndox mi ngir murid yi nga xamante ne bi ñoom ñoo féete ci ci ciment bi day xam ne ne lii moom liggéey bi ñoom ñoo ànd kon ñun ñoo fii ci ndox mi nga xam ne bu ñu defee xeer def def suuf jaxase ñun ñooy duel ñi nga xam ne dañuy yóbbul ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi bu ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën yaatal liggéey bi waaw ñun ñoo féete fii nga xam ne mooy fii ci ndox mi ànd koog suñuy jëwriñ nag Assane Boub Baye Fall mi nga xam ne moo doon jàlle kàddu yi léegi di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex bu baax yokk ko kattan ak wér di ñaanal sëriñ bi nag ñaanal sëriñ mën sëriñ mun Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tawér liggéey bi amul mag amul ndaw ndax soo gisee ñii ñëw di root si ndox bi sax ay tout tànk lañu yoo xamante ni tubaarkàlla macha allah wane ni moom liggéey bi moom kenn warul ni damay dem bàyyi sama doom ginnaaw wala damay dem bàyyi sama waajur ginnaaw. waaw loolu li ko waral mooy yoonu Baye Fall amul mag amul ndaw ndax sunu maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne bii moo tax ñuy jëf wootewul ci doole ndax bu woote woon ci doole am na ñoo xam ne dañoo fooyee duñ mën a ñëw waaye wootewul tamit ci alal. ndax bu woote woon ci alal am na ñoo xam ne amuñu alal duñ mën a ñëw waaye wootewul ci ci ci xam-xam ndax bu woote woon ci xam-xam am na ñoo xam ne jànguñu duñ mën a ñëw ci bëgg la woote ak bëgg nag keppe bi sax bu ko neexee toog ci kaw pus-pusam ne la maa la gën a bëgg sëriñ bi bëgg googee nag day ànd ak jëf mooy bëgg ak gëm ak jëf te lii nga xamante ne bii mooy ndigal ndigal mooy dundal ab Baay Faal ndigal moom moo waral lépp li fi nekk sunu maam Cheikh Ibrahima Fall dem na ba àgg sax ne la Iblis mi nga xamante ne bii mooy njiitu sawara yor sa kurus naan onze billahi mina a rajim taxulaa mucc ci moom jàng alxuraan taxulaa mucc ci moom julli yu métti taxulaa mucc ci moom la lay tax a ci moom mooy da ngay dem dëkk ba mu gental nga sanc ko dëkk ba mu gental nag mooy ndigal léegi yow soo bëggee mucc ci moom da ngay dem fa nga xamante ne bi moom la gental mooy ndigal nga sanc ko daal di mucc ci moom loolu la sama am sax jàngale moo waral saa suñu wootee murid yëpp mën a daje mën a ñëw képp ko am sa tutànk nga ko ko am sa soxna nga indaale ko waxoon na ne kat liggéeyu sëñ Bamba bi kat ku ci yónni sa doom toog bu ñëwee di sa bàyyi ku ci yónni sa rakk toog bu ñëwee di sa mag daana doom ku ci sa jabar toog sax bu ñëwee di sa jëkkër daana ku ci sa taalibe toog bu ñëwee di sa sëriñ daana lii tax ma ñëw kon looloo tax saa suñu wootee murid yëpp dañuy daje mën a ñëw <laughs> kon di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu tax di ñaanal Cheikh Fadilou Fall ak Cheikh Moussa suñu borom defal leen tawfeex bu baax a baax barke Cheikh Moussa kon soo leen gisee lii xam ni kon lii euh, euh, bokk na si euh, lii wane ni fii lépp lu fi nekkoon lu nekk rek dañ ko fi dëjjati ba mu jeex tàkk ndax lii ko xool xam ni lenn la woon si dalu tribune wi tribune euh, stade bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon gis ngeen bañ ko déjjatee it dañ koy tas ba nga xamante ni ay xeer kese lay doon ñu jël ko euh, jal ko fexe nan lañ koy jëlee si barab bi ndax barab bi liñ fi fekkoon yëpp mbokk yéen a ko gisandoo si image yi ab stade la woon bu ñu muré woon ànd ak tribune ak yëpp yu mu waroon àndal lépp la ñuy toj waaye duñ yem si toj ko waaye duñ koy buub. tasaare ko ba mu jeex ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu bu ko defee nag daal di fiy tegaat leneen lu bees seq xam ngeen ni lu bees li weesuwul ndigalul sëriñ bi incha allah dinañ si dëkk si euh, techniciens yi ñu mën ñu ko leeral ndigalu sëriñ bi nag mooy def fi ak jàkka euh, def fi ab institut islamique ab daara jàngkat jàngkaayu alquran waaye def fi ay dalwaay maanaam kër sëriñ Touba gu mucc fii si Mbacke xam ngeen ni nag euh, ni ko Baye Baara Mbodj waxee nga xamante ni diggam ak fi nga xamante ni fii lañ wax ni fa la bi feeñee daanaka da ngay rek gis ko matul sax sax daanaka euh, ñaar téeméeri metre wala ci lay yem wala téeméeri mètre kon nag euh, ñàkkul ni ñoom ñi nga xamante ne ñooy sunu mbokki Baay Faal yi nekk fii di liggéeyal sëriñ bi ñu euh, am si ñoom ñaar ñetti kàddu si ñoom ñoom ñoom murit yu baax yi. waaw ñun ñoo ngi jógee Touba Darou Tanzir bi ñu déggee ndigal dimanche lañ ko dégg ca ngoon ñu xëy altine fas yéene ànd ak ci liggéey bi waaye lépp loo xam ne sëriñ Tuubaa ko mën a bëgg rek ci maam Cheikh la koy jaarale lépp gaa yi doon ci Pastef nag fas yéene ci nekk nag ba lépp mat ci ndigalu si Muntaxa si ndigalu si Muntaxa lu ko bëgg a liggéeyee allah jëfa njëkk rek rek bàyyi dara yii mooy dali tribune bi kon nii lañ ko fas yéene jàppoo ba daanaka dara du fi des ba mu jeex tàkk moom kay dañuy génne fondation ba mu jeex tàkk defaat fi leneen lu bees càq te ba nekk suñu Muntaxa bëgg rek loolu la gaa yi fas yéene incha allah gravaay loo ci dégg fan lañ ko war a yóbbu wala dañ koy maasale si barab bi. ah gravaay bi xanaa dañ koy xool rek fu fu oto yi nar a def ko fa ba mu noppi waaye li ñu ko war a liggéey moom lépp lu bees la a doon incha allah. kon yemuñu si déjjati waaye dañ koy tas ba nga xamante ni euh, dara euh, luy luy xatal wala luy encombrant du fi am. dara luy xatal du am ci bi ndax lépp war a sell rek te aw yoon barke maam si yàq. man Modou Gueye laa tudd man Touba la Darou Manane daa ñëw liggéey bi waaw ah. liggéey bi doom baafaal nag if rek suñ digal ñu wuy si rek fexe liggéey ba mu àgg allah loolu bi moom danoo amul noonu def da doon roñ xeeri waaye toj bi moom àgg na waaw. foofu fii oto yi jaar rek lan doon ko yóbbu fii oto yi jaar ah. ngir yombal oto yi mën a dugg si. waaw foofu da woon suuf oto hmm. yi fi ni jaar rek lan doon. ma leen jàll. defar ngeen ko ba noppi di xaar geneen ndigal. waaw defar nañ ko ba pare di toog di xaar beneen waaw ah. jaajëf. dañoo ñëw si ni mënee daal di jàpp si liggéey. liggéey moom wax dëgg yàlla neex na torop dëgg yàlla waaw ñaar bay faal lañ jógee. Hmm. ñun xanaa liggéey rek ba ngoon jot ñu wàcc ñun moom dañuy jël xeer yi di yóbbu. Mhm. waaw ak maye ndox lépp. Mhm. ah xanaa ñëpp rek ñëw ñu liggéeyal Cheikh Ibra rek. ñu ne ñu xëy leen ñu daal di xëy bu nu bu sëñ bi wàccee ñu delluwaat ci kër yi bu bët setee bu ñu dégluwaat ndigal bu ñu wàccee ñu de wàccee di dégluwaat ndigal bu suba bu ñu xëyee ñu soññewaat ñu daal di awaat ci woon bi daal di fas yéene ñëw rek nekk ci rek. buñ nee nañ tibb suuf ñu tibb suuf buñ nee nañ tànk ñi ñu ndox luñ ñu defloo rek ñu def ci loolu daal lañ ne ñun fi nii waaw man de loolu rek laa morit ndigal rek jëfee ndigal bàyyi tere bu ñu xëyee daal sunu loxo gi sunu ginaare ba jant sunu tëdd incha rabbi wàllu waaru soxna yi tibb suuf ak tàng ndox ak lépp la ñu defee moom lu góor ña nekk rek ña nga ci yanu ba ñu tajee miir ba fii jigéen ñi dàq yanu góor ñi jigéen ñoom daa mel ni sax boo ko seet ñoo ëpp possible góor ñi. xoolal góor ñi jigéen ñi kat ay ñetti moo la rek jigéen ji ko yenu waaw loolu kay ne moom possible dëgg la moom te sëñ bi leen di jàpp rek lépp moom ci loxoy sëñ bi rek lañ ko teg Cheikh Ibra daal la jaral lu ne moom waaw waaw Sen ben lan kucak ustay, kucak ustay. Sen ne? Gen ben lan kucak yem na ndigal bëgg na ndigal Baye Fall yem na ndigal waaw waaw waaw lii moom te sunu waajur la ba léegi ni ca carrière ba ba tey ñuy soññu góor yàlla ci waar wi di jëf jël loolu la ñu xamee sunu waajur yi ñoo ko nekk nekkoon ak ñoom ba tey ji ma yore ko nekk ko ñoom di soñ nag góor yàlla ci waar wi boole ko jëf jël ndax mu ne moom ndigal rek la am. ñi si waañ yi moom ñi si waar wi rek leen fi bàyyi. kon yéen daal mel na ni moom yéen a ngi si ndigal li bu wér. ndeysaan salaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu waaw ñu ngi santaat sëriñ baax kay waaw gën a ñaanal mam Jum Fall mu yàgg fi loolu tax nag wér parce que maam Cheikh Ibra xam moom lépp lu ñu def rek ma ñu ko def loo te ngërëm doon lañ ci sàkku waaw ñu tuub baax nag Fall Ndiaga waaw daanaka moom baaxal moom dëgër rek te moom sëñ moom waaye moom daa yaatu te ku nekk ak si ñu suñu féetalee kii kii soññeek ñi ne ci waar wi ak ki ne ci xéewali ak ki naan bay faal waale ngóore yëpp rek ci ndigal la bokk ndax bu ngërëm taa bi ñëpp bokk ngërëm li boole ngërëm ñun nag suñu dañoo féetale ci waañ yi ñu toog wàllu xéewal yi ñoom suñu jur nañ ñu nekk ay ndaw ñu jaa ñu gisal teg ñu ci teg ñu ci yoon wañ ñu naka nan la ak naka la bañ tegu ci yi ba ñëwaat am yéen tuntànk ñu daa ñoon teg ci yoon yi daanaka rek waaw mooy mooy luy jëriñ wax rek waaw daanaka ñun lo lo lool nañ ci lool ci wax ci kàddu yi waaye ndigal moom daanaka moom mu do do bay xal amul loolu ndigal ndigal la ngay jëfee. waaw am na jur yoo xam daanaka moom lii ñoo ko gën mën fop dàq ñu ko téeméer junni yoon te njëkk ñu ci téeméer junni yoon la ak nan naka la kon ñu joxee kàddu ñu wax dañuy wax li nga xam ne moo ne ci rek ñoom daanaka bu ñu xëyee rek naka dañuy jug fajar nekk ci ci wàllu lépp lu wàññi laaj rek ñu xëyee necc necc necc ba mbir yëpp sotti ñu gàdduwaay lépp indiwaal fii di xaar di ndigal tamit waaw dañuy togg ba mu yemb bëggee jàpp ne nii sëñ bi ko nii rek ñu yëkkatiwaat ba mu baax daal indiwaat fii xaaraan ndigal si mu joxe ndigal ñu daal ndax ay góor yàlla la wala ah, da nga am soxna yoo leen ko àndal daanaka moom ma maam fiére moom daanaka daa ami soxna ami Baay Faal lu baax moom ñëpp ko bëgg yàlla waxul ñu ne gën a góor yi rek di bul lu baax ni ko di ko góor ñi bëggee na la ko jigéen ñi bëggee moo tax waa ñi moom daanaka am na góor am na jigéen waaye ñun xàmme ñu góor a jigéen ndigal léegi moo ñor waaw nu ñu fexee ba li ñu bëgg rek moomee ko noonu daanaka loolu moo ñor rek waaw waaw di leen jaajëfal bu baax a baax euh, di wax ne dafa mel ne yàq ngeen ba indi <laughs> yéen ay féete waañ ñi kon yéen moom da ngeen am solo ci liggéey bi ndax Cheikh Ibra Fall mag ñi daan nañ wax ne ñu daan liggéeyal sëñ bi ba waxtu añ jot daana wax murit yi ana ñuy liggéeyal sëñ Bamba su ne ñu ngi ni mën a ñëw leen añ ah, kon daa mel ne daa mënta ñàkk eh, naka ngeen di taxawoo waañ wi ci liggéey bu tedd bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy liggéeyloo sëñ Cheikh jëmm yéen ngeen féete ci waañ wi nag di togg di jox murit yi ngir ñu mën a def dara ndax saako bu defut du taxaw ma ngi daan nañ ko wax su ko defee mën a pëseefu ci liggéey bi est-ce que ñu gërëm Serigne Touba bu baax sant Serigne Touba di wax jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li Serigne Touba moo ko jox maam Cheikh Fall waaw maam Cheikh Fall nag mooy sëñ Cheikh jëm moo fi nekkal maam Cheikh Fall jamono jëm toll nii waaw moom mooy suñu Serigne moom lañ yaakaar fii ñu nekk ak fi ñu jëm waaw mu jox ñu ndigal li ne ñu pour ñu ñëw fi togg jox Baye Fall ñu berdeel ñun tamit si liggéey bi lañ bokk comme ni le dañuy dem si liggéey bi bu ñu kiyee dañuy dem si liggéey bi. mais ñi ngi ñaanal sëñ Cheikh jëm mu yàgg fi loolu te wér bu fi yàggee rek muy njëriñu Baye Fall yi yàlla na fi yàgg te wér faal barki maam Cheikh Fall yàlla na fi Serigne Cheikh jëm yàgg te wér bu fi yàggee te wér rek muy njëriñu Baye Fall yi. dañ leen di ci waañ wi. waaw bu dañ fi fanaan. Hmm. fi la ñuy fanaan waa dañ fay am néeg ak yëpp. waaw fii waaw. waañ bàyyi na le fa la ñuy fanaan. bu ñu xëyee fajar 8h 7 dañuy yeew jublu si liggéey bi. ba ñi ñu wàcc ba ah, ñibbi ñu raxas suñuy bu añ seddalee nii ba pare raxas suñuy bool préparé waat suba ndax gars yi duñ fi reeree. kon amul toog moom. non non gis ku ne am na ci lu muy nekk am na ci lu muy nekk xale bee sax ngay gis ne la am na ci lu mu nekk. Hmm. am na si waar bu nekk ku nekk si am na waar bu nekk ñun daal ñu ñaan sëñ bi yàgg fi te wér rek man loolu la am si may wax yàlla na fi sëriñ bi yàgg te wér. bu fi yàggee tamit rek ñun ñëpp mooy suñu njariñ ñun barki maam Seera Fall waaw jaajëf ñu ngi gërëm Baye Fall yëpp nag di ñaan sëñ Fallou Fall tamit mu yàgg fi loolu tawér barki maam Seera Fall man a xanaa li sëñ bi leeral lañu fu liggéey bi toll ak li fi sëñ bi naal ak ndigal li fi sëñ si ajjë mu joxe waaw kay waaw ñu ànd ak no télévision bi kew kew kew kew ajuma daal lañ bokk daje këram kew ba fere kew ñu waxtaane ko waxtaane ba ne rek dañuy seeti dañuy bi gaawu na gaawu ñu dem fa doon ko seeti woote foofa sëñ sëñ bi mën na mën nañoo dajee ci kër gu mag gi mën ko fekk ci kër gu mag gi ma ànd ak sëñ Saliou déedéet ma ak sëñ sëñ si Assou ñu ñu dem dem fa dem fa seeti ko bañ ko seetee nag bañ ko gisee rek waxtaan ceeg moom fekk sëñ bi jox ma nii ñaar fukki million ak devant téeméeri kaamil waaw ak ak ak xaw ma ak suukar ak bëri ko jar kë kër yaa ngi waaw kii yaa ngi cent pour cent man daal ah, keroog daal keroog daal lañ lañ ñëwoon keroog loolu daal lañ loolu waaw euh, mu ne man ngeen ko man ngeen ko commencé rek. man ngeen commencé altine. waaw waaye bëgg dem ah. altine bi weesu waaw altine ji weesu. waaw ah yaakaar yaakaar doo di jóge bu de. dinaa ah. tàmbali nañ ko nii. Ah. ndax ndax ndax bu xëy si bu xëy si la daal xëy si weer yi. Ah. ne moom lañ tàmbali dindi miir bi. waaye euh, waaye waaye ñaar fukki fan ñaar ci weer yi ñu nekk. lawal wax wax gisoo ko nii lii lii la ñu lii lañ xam ne daal muy mur yëpp da xam ne xam ne ndigal jot na ko ndigal jóg na te ndigal yi moom ñoo ko bokk ndax keroog su di ñëw waaye yeban ña nekk moom sëñ Asi Seck ak sëñ Sidi keroog keroog ñu am di sekk ñëw am di sekk teew ñoo am sekk ñoo ànd ñëw loolu yaakaar naa yaakaar naa war ko bàyyi daal daa kii ndax ndax ndax eh, jàkka daal la fi bëgg daa bëgg ñu miir ko ñu miir ko defar ko fi jàkka waaw jàkka joo xam benn tool lay doon la wax daal la gaaw ñu ne daal ko fa jàkka benn tool lay doon waaw waaye tew xew daal xëy seen weer wi daal la wax ne ci lañu woote xew yi waaw keroog daal loolu la wax keroog bañ ko fekkee fee ci eh, kër Sëñ Tuubaa gi waaw ginnaaw bi ñu jullee daanaka ñu ci booy wàllu takkusaan rek lañ ko gis boobu takkusaan lañ ko gis waaw xanaa rek ñëpp jàpp ci rek xam moom daal moom daal xam naa daal daa bëgg ñu ko daal defal ko fi daara ak jàkka ak xanaa ay ay dëkkukaay rek ay dëkkukaay rek. Seydou waaw. lii moom lii moom lii moom da ko war a am fii. da ko war a kër. daa war a kër. seex itam war war yàlla war na kër. waaw ndax moom mi ngi dëkkoon fii ci bi sëñ bi dëkk fii ci mbak fii fii sëñ bi dëkk fii waaw xam na dañ daan ànd di dem ba ay gaawaan ak ak Daaru Salaam ci fii lañ ko dëkk bii fii lañ la àndee dem gaawaan ak Daaru Salaam ak ndokk wax nañ daaraam fii ci buntu xabru yi xabru yi fi la nekk fii ci mairie Mbacke bi daal mairie fii ci mairie bi daal fi la dëkkoon ba gat fa teen teen boobu sax am jamono wax naa Iba Iba Iba ne ko teen bi dox ñu ko ñu defar ko di ko barkeeloo ndax ne jamono yooy bu bënneeb teen ku bënneeb teen ba foofu foofu nga wax ko sa sëriñ sa sëriñ la ci waaye gannaaw ginnaaw bi seen bi ah, sakk nañ ko waaye waaye teewul foo ne man xam naa ko am di sekk moom it xam na ko mu nekk xam naa ko teen bi am di sekk xam na ko ah, daa war a am ndéem ndéem sax lañ miir lu ma fukki mètre def foofu terrasse def ko këru Cheikh Fall loo loo loola war loola war na waa dëkk bii war na waa dëkk bii ah, war na war na waa dëkk bii man man ndox mi ndox mi ciy génnee sa suuf si ndax ginnaaw moom fii la feeñee man ndox mi fi génnee sax dama dama koy naan man dama koy naan fii de sa sa sa dërëm de du jar ndox mu ndox mu neex mii bidon yi sa dërëm du ko dal. sa dërëm daal du ko jar ndax ndox mii nga xam ne fële bi feeñee ah, ka xam ne sëñ daa toog ba bi ba fan laa dégg Mourou Amar di waxtaan ci sëñ Mourou Maam di wax di nee na sëñ bi sëñ bi di yem sëñ di si di yem Cheikh Ibrahima ah Cheikh Cheikh Ibrahima Cheikh Cheikh Fall ah am mu nekk ku nekk kusatu buso wala wala ndiyaayam la mu ne ko waaw waaw lu Cheikh la defati mu ne lu Cheikh la defati mu ne ko dafa maa teg fa ma sama borom teg dafa maa teg fa ma sama borom teg moo fa ma sama borom teg la ma Cheikh teg waaw ma ne ko ma ko <laughs> ah, ma ne ko ma ne ko bi ma ma ne ah, alhamdulilah loolu de moom sant loolu de rek la ñu war a sant rek la ñu sant rek yàlla defal jàmm waaw a xaar mhm. mhm. daat fan ñàkk wërsëg rek waaw waaw waaw daat nag jaxasoo goo xam ne ci loolu moom du jur lu may gàtt fan ñàkk wërsëg gàtt fan ñàkk wërsëg xam naa fii sax ku ko manoon boo fi ñëw ja ah, fi ñëw jàpp ba set moo gën a ba war jàpp ba set xam ne xam ne liggéey xam ne kër Sëriñ Tuubaa la kañ ko jox mu wóññi ko ne léegi da koy def kër Sëriñ Tuubaa ku fi nekk Sëriñ Tuubaa mu nekkal la fi loolu wax loolu la ma wax keroog nee na nee na lool lool la wax ne da koo bëgg a liggéey def fi jàkka ak daara ah ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek. mu nekk nekkal fi ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu nekk fi ne yaakaar ne lii ñu yóbbu bëgg dem yaakaar ne bootu xam naa ci liggéey ba Cheikh Rafa loolu xam naa ne la ko bëgg liggéey ndax booba barabam bee fi mu tëdd ne dafa waxoon ay waa këram leen bu ëllëgee bu ko kenn lekk li fi ñëw bu ko kenn lekk nañ ma ko joxal ku fi nekkal sëñ Tuubaa muy lañ saaree ci barabam bi ndax man ka dama bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ba fu ma tëdd suuf sama suuf di ko liggéeyal dama ko bëgg liggéey liggéeyal ba fu ma suuf sama suuf di ko liggéeyal xam nga kooku kooku wàccul ah kooku ku ah? kay kay kay kay kay xam ne léegi nga matal dem ngay woo sa waa kër di waxtaan ñoom nga dama bëgg sama barab boo liggéey lu fi ñëw nañ ma ko joxal ku fi nekkal sëñ Tuubaa ndax man kat dama bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ba fu ma tëdd suuf sama suuf di ko liggéeyal ku yàlla suñu tas barke barkeem rek li ma ci wax euh, du bari ci sëñ Fall rek lay wax ndax moom mooy jëwriñ ji bi nga xam jox nañu liggéey bi sëriñ bi ñu ànd dem ci sëñ Moxtaar moom mooy jëwri ni sëñ Cheikh Jëmb bi ñu tàmbalee liggéey bi it dafa wax ne dañoo wax ne dañuy dindi mboolem la fi nekk ci biir génne ko ci biti ba dara ba mu set ñu xaar nag ba xëytal weer wi ñu doo ko tàmbali liggéey bi waaye moom dafa wax ne liggéeyam sëriñ Touba du ci ñëw di delluwaat di xaaraat ba tax na ñu ngi nii di mool nee na moom bu fi jógee baatu ndigal ko fi jógee wala liggéey bàgg mi ngi fi waxtu wu nekk waxtu wu ne ak waxtu wu ne nag mi ngi fi di déglu di di ta liggéey bi rek di ko taxaw ku fi ñëw da nga ko fekk luñ ko ci jox nag dana ko def ci liggéey bi moom def dañ jël li maam lépp dana ko def ci liggéey bi nee na jógewu fi guddi jógewu fi bëccëg mi ngi fi waxtu wu ne kon loolu rek laa doon jottali ñoo xam ne moom mi ngi fi jógewu fi te mooy jëriñ liggéey bi lépp lu lépp lu waay am muy fer muy beton muy suuf muy xaalis lu mu doon boo ñëwee dana la ko defal ci liggéey sëriñ tubaab bii liggéey sëriñ Touba rek moo fi nekk nag loolu leen lu waaye ma def lu liggéey sëriñ Touba xal xalsan ngaa perte fii perte fa nga jëm liggéey sëriñ Touba bi nag ginnaaw jóg na te sëñ Mountakha mi fi nekk jëwriñ sëriñ Touba joxe ko jox ko sëñ Cheikh jëm mi fi nekk jëwriñ jëwriñ Cheikh Ibra moom mi muy jëwriñ ñu tegaat ko ci loxoom mu ne wax na ne kat képp ku bëgg a jëriñu ñëwal ci liggéey bi jariñu ci ndax kaay leen wuy ju kaay leen jël la nee na ngeen ni ko nag ku bëgg a jël na nga si te ànd ak li yor indi ko jërëjëf. nee na du fi jógee te baatum ndigal jëlewu ko fi mbaamu yegg nu fas nañu ko yéen a ànd ak moom yàlla nañu sa borom defal wér defal ko ko moom mii waaw fas ko yéen a ànd ak moom ba mu nu co yegg colet barke sëñ Touba ak Cheikh barke sëñ Modou Fall. fii ñu gënoon a miin si stade bu Mbàkke bi sunu borom dogal euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na sunu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd wér teg ko si loxol Serigne Cheikh Jëmb Fall ngir ñu nag naal fi liggéey bu rëy ngir Serigne Touba Xaadim Rasoul euh, liggéey bi nag di euh, yeesalaat barab bi ba nga xëy ni daanaka day mel nam meloon bu ñu noppee nag dal di yëkkati liñ fi war a yëkkati. moo xam miir bi la ak lii aaju si biir. ziar bu baax a baax ni nga ko waxee sëriñ Falilou Fall mi nga xamante ne mooy jëwriñu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu <clears throat> sëñ Mamour Ndaw ak sëñ Aliou xam ne yéen fi teew bi nga xam ne ko maam ji maam mu ñëw fi yéen ci ndigal li nga xam ni sëñ Mourou Mountakha Mbacké mu ngi yëkkati jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall mu sëñ Cheikh Jëmb mu jëriñ bi nga ñëw di siyaara si liggéey bi di ko jël si ba si ne ko yaatalal sëñ bi soññal ko ci foofu jullit ne ba ab ne fi ci àdduna ñu dégg liggéey bi nga xam ne dégg moom mooy njariñ rek moom moom moom lañ ñu dégg ko fii nag li fi nekk ku ne xam ku daana ko dégg ci wàllu àdduna ñaan stade barab foofu gaay dañuy day mel nag àdduna moom gannaaw suñu tuwaan sans borom mel ne ko àdduna ak àllaaxira kon foofu nag fu lu baax ne alalama fu lu bon nekkit alalama waaye nag lu bon li moom moom la ci lay liggéey fii nga xam ne stade loon boo xam ne dañoo wax naan dañoo ñu bari nañ fi la feeñee mbaa boog ñu bari wax nañ nekkoon na fi dañu daal fa rek moom la bëgg ñu dindi ko nag ba waa dëkk bi nag xam naa dajaloo jël barab bi jox ko seen Tuubaa addiya ko defee nag te ko ci loxol Seex Mamadu Muntaxa nekk fi Xaadimu Rasuul moom mu wax ni barab bii de li mu ci bëgg mooy joxal ko seen Tuubaa daara ak jàkka ji ñuy fàttali lislaam waaye loolu nag Cheikh Rafal da ko ci doy moo tax mu ñu yónnee ndaw nag sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir ak sëñ mu ñëw Mbàkke ak sëñ Cheikh Jëm Fall fekk ko fa ko ndigal li ko neen daam boo xam ne dafa bëgg nga liggéeyal ko mu isaar bu ne ca yoonu njaaree booy génn Mbàkke booy dugg booy booy dugg Mbàkke sa càmmoñ <coughs> nag seet na ko ba xam ne daal lu mu ci bëgg Cheikh Rafal la moo ko mënal moo tax mu jox ko bëgg na nga wax ko waa kër Cheikh Ibra Fall gépp ak ñu bokk ko ndigal Sëñ Tuubaa ñu ci kër Cheikh Ibra Fall nag mooy ndigal la murid yëpp sëñ bi nag woowunu fi ngir dina sonal woowunu woo ngir dina dimbale ndimbal nag mënu koo def ci nag jëfaloonu ndax sëñ moom dara du able du day jaay te njëgg nag moo jënd <clears throat> njëgg jënd moo waral moom wax ko ni ko nag na koo xam wala mu ko bokkal Cheikh Ibra ak ko bokkal yoonu murid suñu seex ci mbir mi ndigal bu ñëwee yéene ko ñëpp ndax xam ne nañ njëriñ àddina lu àllaaxira defaru tey góor rek a ci ne bëgg nag jullit yëpp ak Baay Faal yëpp ak mbër yëpp ñu defar si muy dafa bëggoon nag képp koo xam ne seytaan nga taxaw ci kaw suuf sa bopp féete kaw nga def jullit sëñ bi ne la woon la ci liggéey bi rawatina nag ñu ne ci biir réew mi te yaakaar Seex Ibrahima Fall seen yaakaar ne ci seen Tuubaa góor jigéen mag ak ndaw jëf ji nag ni ñu mën a bokkee léegi bari na lool ndax woote ko bari na yëpp yéene ay bari na man ngaa ne ca Amérique mbaa nga ne ca France mbaa Italie mbaa foo ne ci bitim Afrique mën ngaa xëy bala ngaa xëy balaa huit heures a jot nga mel ne yaa ngi ñuy xëyandoo yaa ngi ñuy xëy yéen a ngi dajandoo waaw la nga yónnee mën a agsi fii fekk fekk leen mbaa mu jiitu leen fi yaa xam noo ko yónnee nag ci yónneeyukaay yi ñu ne ci réew mi itam ñëw jë ñëw si ñoom wàcc nañ waaye ñëwul itam am nañu mën a ñëwee muy jëf rek tey nga xam daal ak sa ndaw loo yónni mbaa sa mbaa sa doom mbaa maa ngi ñëwal sa bopp yaa xam da ngay indi sa kornatu gerte mbaa sa muusum tàngal mbaa sa kafe boo tàngal mbaa añ boo dogg indi ko fi maa ngi ñëw jëf waaye lu ci waay mën a bokk daal bari na lool waaye nu ko maay defee boo xeeb ndax noo ko maa defee rek suñ moom la mu lay fay moo la gënal foofu la nga ko joxoon mu ngi mel ni yow foofu sa bal boobu ñu naan ab tengs ko ci am miir bu dóor boobu bu na muy miir ba kon la jox Sëñ Tuubaa nag bu ñëwee noo noonu lay noonu lay ëppee na ko joxoon kon nan waajaat te diggaat ndigal li te fas yéene jarañu si ndigal li nag bi mu ñëwee si loxol Sëñ Cheikh Jëm moom joxaat na ndigal ñu woote altini ji weesu xam naa du weesu hmm, xam ñeenti fan ci waxtu mbaa foofu du sori foofu mbaa juróom benn fan tàmbal nañ ko nag ñoo nañ fi dindi nañ miir yi dindi tabax yi fi nekkoon di maasale fas na yéene it tàmbali liggéey bi waaye àllarba lañ tàmbali mool yi mool yi moom tàmbali nañ ko àllarba nga ne fii daal noo ci liggéey bi di taaxalu ndigalal si xam Muntaxa Mbàkke ci la ma waxoon ni dafa bëgg ñu teg xeer bi ñaari fukk ak juróom-ñaar ci weeru wolof fii dinañ rakaati gàmmu mu jumaa daal awal ñaari fukk ak juróom-ñaar la bëgg a teg xeer bi mooy teg si xeer yi mbaa ku mu yëbal rek ngay jëmam mu teg xeer yi moom nag fas na yéen tàmbali na ko duñ ko bàyyi mukk tëddu nu ko bëggee da ko na amee tàmbali daal caabi yaa ngi da mooy déglu fas na yéen nag nu ko bëggee rek bu soo yàlla daan koy defee te amatuñ genn yite fenn amatuñ genn bëgg fenn lu may bëggam rek bëgg suñu tubaab genn ko def na nga rafet njort ci la nga bëgg sama borom dana la ko defal waaw ku def bëgg suñu tubaab gii na nga rafet njort sa bopp ni la nga bëgg suñu tubaab dana la ko defal kon nag sama borom noo koy ñaan mu dimbali nu di war ko Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Jëm Fall mu yor liggéey bi mu dimbali nu ba wéral nu te aar nu te sàmm nu te mënal nu nag li ñu bëgg lépp ban jëfe ko waaw kon nag suñu baa ngi soññ ñëpp nag sëñ Cheikh Jëm Fall nee na mu ngi soñu julli yi ak Baye Fall yi murid yi fooy mën a ne ak ci réew ma ak bitim réew lu ci waaye man bu ko xeeb na ñëw indi ko ci mbaa mu ñëw jëf si ndax kat dégg du ci jëriñ dara jëf rek ci jëriñ aw ñam moom dee xeeñ te lekkoo ca ah bu la fekkee xiif xiif rek lekk ga rek moo la jëriñ lekk ga nag mooy jëf ji kon nag sëñ bi nee na mu ngi yéene lii ñëpp te di nag góor jigéen mag a ndaw fooy mën a ne na nga ñëw wuyu si liggéey bi te jërëjëf ñu si kon nag sëñ Alioune Badara ndigal laa ngi nii yàgg sëñ Mamour sëñ baa di ko soññeelu di ko yëglalu ñëpp di ñaan sama borom nag suñu àll yi ci ngal doole mi nga xam ne moom la yebal si te ngeen nekk moom rajo bi ñu tudd suñu maam ji muy Cheikh Raye Fall mi ngi doolee ñaanal ci rajo yi sëñ Tuubaa ak liggéey bi fu mu bëgg mu àgg fa yàlla na ko Cheikh Raye bi itam mu ñaan sama borom jàppale leen ba lim ci yéene di ngeen bokkoo moom ngeen man ko ba sama defal la seen bopp yoo xam nag da yaatu loolu ne gaa ñi ngi liggéey seen Tuubaa jërëjëf jëf nag bu fi sama jóor nekkoon du ma wax waaye dañ ko dañ ko yónni Tuubaa muy sëñ Mourou Moussa daa dem Tuubaa léegi seeti ci yi la jël la jël moom la toppatoo ji kon a ndigal laa ngi noonu na ko ñëpp jàpp rek jërëjëf jëf dañuy sant yàlla bu baax ci barke Serigne Touba bi nga xamante ni li Serigne Touba bëgg am na wante it li nga xamante ni moom la askan wi muy ndaw ñi doon jooy it saafara woon lépp ci bàkk Sëñ Tuuba jërë ngeen jëf mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi lii leen leen euh, jëlale woon kon ci liggéey bu tedd bi nga xamante ni ma euh, Cheikh Mouha Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jox na ko. Serigne Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaay ak maam Cheikh Ibrahima Fall di euh, barab bii nga xamante ni euh, ab stade la woon fii si Mbacke stade du Mbacke bi ngir nag ñu daal di koy soppi def ko kër Serigne Touba Khadim Rasoul boo xamante ni dégg ngeen jëwriñ yi ñi nga xamante ni moom lañ si leeral ak li war a am ci liggéey bi yëpp kon nag liggéey bi moom du liggéey bu ndaw. waaye mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi takku nañ ngir jëfe ndigal li kon ndigal yi ko jiitu sëñ Mamour Ndao Baye Fall ndax nag xam ngeen ni kon dina am ab juma niñ ko waxee am ab institut islamique am ay dalluwaayu kilifa fii di comme nuñ ko mën a waxee rek Mbàkke am kër Serigne Touba Khadim Rasoul si nag njiitalu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàgg toog jotaay Serigne Touba Khadim Rasoul te sunu borom may ko mu yàgg fi loolu te ànd dégg ngeen kàddu yi maire bu Mbacké ni mu ko leeralee noonu waaye it dégg ngeen euh, li nga xamante ni mooy soññee bi am solo bi nga xamante ni euh, sëñ Baara Baye Baara Mbodj soññee na ko si liggéey bi kon woo nañ képp kuy Baye Fall xam ni liggéey bi moom liggéeyu doole la ak liggéeyu alal ndax lii miiree stade bi yaakaar naa ni toog di wax kese du ko def waaye nag euh, yónnee ci yónneekaay yi say ñaq fu waay mën di nekk si biir réew mi ak si biti réew yi kon ñu ngi leen di séntu si liggéey boobu waaye it ni ko Baye Moustapha Seck waxee ab Baye Fall moom bu ñu la woowee si liggéey aajawul ne da ngay ñëw rek daal di barkeelu yaakaar naa ne ni nga war a def mooy joxe sa maanaam uh, uh, ànd ak liggéey bi ba keroog ngay dégg jaajëf waaw mu yeewee bi waaye te jaajëfal bu baax uh, Serigne Moustapha silla si kaddu yi am solo yi di si yaakaar bu baax a baax nag Serigne Falloum Sëñ Mourou Aminta di ko ziar bu baax si kaddu yi nga xamante ni baaxee nañu ko mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi kon takku nañ ngir nag jëfe ndigal lii nga xamante ni jox nañ ko ku fi maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Fall jëm sëñ Mamour li ma gën a marke si liggéey bu tedd bi mooy maanaam euh, euh, da nga fiy gis sax tout tànk boo xamante ni daanaka mun nañu wax ni day jàng wax wala muy jàng dox li mu tollool ñu koy jox nga xamante ni góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp fi daje. waaye soo xoolee si image yi li si gën a yéeme mooy col gu yiw rek nga siy gis muy ci góor ñi di si jigéen ñi maanaam li ñuy wax tubayu jàmbur sax doo ko fa gis dina sol yu jot takk seen ndigg ngir nag liggéey liggéey bi nu mu gën a sellee waaye liggéey bi nag bokk sek bakkub Cheikh Ibrahima Fall ngir nag jàmbaar ca waar wa ni ko sama baay bi defee sànq mu doon lu am solo bakk yi nga xam ne ñu ngi leen di bakk ngir gën leen yokku eh, kii ànd kaak kalimatul xaq laa ilaha illallah loolu moom moom lañu ñu xamee Baye Fall kon nag euh, sëñ Mamour euh, liñ fi jëlee yëpp mu ngi noonu ana naka nga ko jàngatee euh, ci liggéey bu tedd bi seen émission Jazboul Mouride gannaaw nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu demoon ci réew yu sori yi ngir lépp ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall gi kon ñi nga xamante ne ñoo nekk si biti ñu ngi leen ci wow bu baax a baax xam ni mbir mi moom jëf jël képp la Euh, jërëjëf sëñ Aline ñoo ñu ngay woo nag ñoom lañ ko séqal ndax ku ne xam na ne sëñ bi bu taylee boppam eh, mboolem taalibe yi ñoom ñoo ko war a jot te niñ koy jotee moom mooy li tax sëñ bi tayle fi boppam mooy liggéey bi ndax sëñ bi kat buñ koy sant donga yee tax eh, ndax donga yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne bii lañ diggee woon ak sëriñ bi saa su nekk duñ denc di ca teg seen tànk guddi ak bëccëg suba ngoon xam ngeen ne boo génnee ci bitim réew rek xam ne murid yi jàmbaar lañ lool ndax defe naa ne leneen ba foofu muy àddiye ak njël lépp lu ñu am lu ne danañ fexe ba euh, tàkk ko jox sëñ bi ngir mu def ko ci liggéeyam sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kon mboolem fédération yi nga xamante ni bi ñoo wër àdduna bépp nag fu mu ne fu ñu nekk rek moo xam Amérique moo xam Asie moo xam fu mu mën a nekk Afrique Europe fépp rek fédération yi sëriñ baa ngi leen di ñu dajale li nga xamante ne bii mooy addi yi jëm ci liggéey bu tedd bii nga xam ne sëñ bi li mu fi bëgg euh, ab li ma koy def te lim boob itam sëñ bi kim ci yaakaar mooy donga yi nga xam ne ñoo aju jox ko seen bopp daal di koy noppal la sëñ tu Cheikh sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall waxoon féetale yàlla yow mi xam yàlla ma féetee man mi la xam nekkal ci kër gi ma ne ci naaj bi kon bu sëñ bi taylee boppam ñun ñoo tax kon ñun faaw rek ñu mën a ñun itam am lu ñu waajal ngir bàyyi xel sëriñ bi li nga xamante ne bii mooy yéeneem ci sëñ Touba mu mën koo jëf te moo li ko sëriñ Touba sant te loolu kenn waruñ cee jut ñun ñëpp te murid yi fi jël kàddu wax nañ ko ñoom ñëpp xam la nañ liggéey bi liggéeyu poos la liggéeyu poos la donte ne am na liggéeyu doole maçon yaa ngi ci mooleur yaa ngi fi yëpp a ngi fi waaye nag am na ñooñu mënuñu ñàkk dem ngir taxañ dara ngir ñëw Euh, kon ne xam na ne eh, njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall am nga xam ñoo xam ne moom foofu lañ ne seen yéene mooy bu ñuy tax xeer wi ñu am ay tonni ciment yu bëri yuñ jóoral sëriñ bi wala ab lim ci xaalis buñ jóoral sëriñ bi moo tax am na ci ñooñ moom daw nañ fi ne daal foro ji ndax yéene nañ bu sëriñ bi ñuy tax xeer wi ñu jébbale wàlla seen addiye ji nga xamante ni bii moom la ñuy tàbbal ci biir liggéey bi loolu nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom defal leen kattan bañ jëf ko ndax am nañ yéene jàppale sëriñ Cheikh jëmb ci liggéey bi ndax sëriñ Cheikh jëmb kat wax dëgg day koo xam ne dama sëñ ba Mbacke Longal waxoon ne na ma man mi ko xamoon démb xam ko tey bi fi Cheikh Moustapha Fall ne xam naa ne lii mu am lii mu lii lii jumbu ko woon moom ku ñaan ñàkk nag signal yi boo jëndee am te sëñ Cheikh jëmbu daa jënd nee am naa ci Moustapha Fall loo xam ne ku ma fekku ci naaj moo tax ñu taxaw fi euh, rek la yóbbu Paris moo ñu yóbbu puut yóbbu ñu feneen waaw ma ne ko ca glace ga ñu naan seere euh, dégg rek ak deux degré rek yu mel noona nga xam da ngay mën a dox di tibb ci glace gi tey nga ne fii ci naaju jant bi tàmp sa bopp ba sa karaw yi bopp yi lakk nga xam ne sëñ bi kenn xamul lu mu doon waaye loolu lépp nag sëñ euh, Cheikh Ibra Fall rek a tax Cheikh Ibra Fall fu ñu dem ci àddina moo ñu fa yóbbu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla fayal liggéey bi yaatu lool ba law fépp sëñ Aliou Badara di leen jaajëfal a baax nag yéene ji rek ak pas-pas bi mooy eh, niñ koy defee bitim réew di ko defee fépp ci àddina si rek ñu loo xam ne rek dal na ci kaw njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ndigal ñu fexe ba eh, mbokki taalibe yi topp Jazboul Mouride di topp seen télévision Lamp Fall am cofeel ak yéene ci suñu jëmm yi ñu fexe ba nag lañ diggee woon ak yéen ñu def ko te mooy lépp loo xam ne Cheikh Ibra Fall joxañ na ko rek kenn kenn duñu fa njëkk loolu lañ yéene ndax lëg moom boo ko sànnee ci lay defar yaram te Cheikh Ibrahima nee na ku lenn denc ko ci barab boo fa déggee yox kenn warul faa jiitu jërëjëf sëriñ Mamour Ndaw Baye Fall jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi doon uh, topp incha allah nii lañ ko fas yéenee ànd ak yéen ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni uh, Serigne Touba uh, Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér moo ko jox maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Fall jëmb yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér ñuy dem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si rakaatu gàmm bis bi nga xamante ni si la sëñ bi fas yéenee teg xeer wi incha allah lii lañ leen indiloon dinañ àndaat ak yéen ci tegum xeer wi bu ñu neppee fi liggéey bi toll incha allah dinañ ko ànd ak yéen jaajëfal bu baax a baax nag El Hadj Fallou Sil du ñu noppi di ko jaajëfal sunu caméraman yàlla na ko sunu borom defal tawféex seen télévision Lamp fal yabaloon ñu fi. Serigne Alioune Thioune yàlla na sunu borom yokki xéewalam ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne mu ngi koy defal maam Cheikh Ibrahima Fall di ko defal Serigne Touba Khadim Rasoul tàmbalee si Serigne Touba yem si Serigne Touba jox leen daje incha allah si beneen reportage fii si Mbacke Xewar sëñ Mamour Ndaw Baye Fall fii nga xamante ni kon mooy kër Serigne Touba Khadim Rasoul biñ fi war a defar wa axiru daawaanaa ne alhamdulilahi rabbil alamin